aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallam ala sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbi sawi radwaani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi uh, yeesal sunug taalibe ak sunug jëbbal ak sunug yaakaar ak sunug jokk ci mawlaana abdullahi wa xadimi rasulihi sëriñ tubaa xaadim rasul di ñaana muhammadul muntaqa ak mboolem kilifi diine yi ne ci réew mi yëpp rek sunu borom may leen kàttan may leen wér sumb yi ñu am ci liggéeyal ko lislaam yëpp ñu defe ko ñu ko bëggee dañu fekk ko tal ko te ànd ko ñoom di siyaare mbokki jullit yëpp di leen baalu xaq di leen baal ñaan sunu borom mu bala nu baal nangu na sunu koor defal ñu tawféex ak ndimbal di jéglu ñëpp tamit eh, ndax déglu dafa metti waaw boo wax mettee déglu metti na kon ñu ngi jégalu ñëpp rek ñaan yàlla nangu na sunu koor eh, xiirtal ñu ci lépp luy jariñ jiine ji xiirtal ñu ci lépp luy jariñ nit ku ne ci kaw suuf ñu del si tey nag ñu defee seeni waxtaan ci wàllu weer wi euh, tey la talaata euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor mu weeru fukkeel wi weeru juróom euh, ñeenteel ci ati weer wi mooy hijriya weeru koor yi mooy weeru juróom-ñeenteel teel ñaar fan ak juróom-ñeent muy séntu bu njëkk di atum junni ak ñeenti téeméer ak yéen fukk ak juróom 1445 euh, bi nga xamee ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam ga daay ne ca màkka euh, ca weeru gàmmu wa ñëw madina ci atum 622 bi euh, atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent di la 9 avril juróom-ñeent fan ci weeru ibril mooy avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ci calendrier jant bi kom niñ koy wàññi donte sax nekk ko ndax luñ fi sos la waaye teewul mu wér euh, di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru biir ñu tudde weeru biir nga xam ne mooy tàmmee le bu nekk la bu nekk jeex la treize bu nekk ci weeru tubaab nga xam ne suñu mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi te jàngi xam-xam lool maîtriser ko ci lañ daan sukkandiku ngir xam taw yi ak sedd yi ak jant bi ni muy doxee yu bare bari muy tudde weeru biir teele ci vingt sept jours ibril di ñaar fukki fan ak benn ci burju bi ñuy tuddee burjul haml muy la tour de bélier fukki abraaj la ak ñaar yoo xam ne jant bi ci lay traversé ci at mi kem ni suuf si di doxee di wër jant bi muy fukk ak yaar yent yi féete penku yent yi féete bët saalum yent yi féete bët gànnaar yent yi féete sow mooy fi jant bi sowe mooy fukk ak ñaar ñuy tuddee wala xat jaxanaa fi samaay buuroo jën yooyu alxuraan di jàngale sayna naasirin wa xafisnaa min kulli seytaanin rajimin illaa man istalaxa sama faat boo mu biin ñu jël ci fukk ñaar yooyu nga xam ne ci lañ tënk jant bi nga xam ne jamono bu nekk am na bu muy traversé muy jamonoy sedd muy jamonoy tàngoor muy jamonoy nawet muy jamonoy noor bu ci nekk rek am na fu jant bi toll ànd ko biddi wi abraaj yooyu ñi ngi ci burjul xamlu tey la ci ñaar fukk ak benn la tour de bélier ñu war a séntu weer wi tey muy séntu bu njëkk bu fekkee dañuy sukkandiku ci li xam-xam di jàngale dinaa ci indi ay leeral euh, incha allah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Euh, mu mel ni nag euh, démb ci altine ji am na ñu doon séentu weer wi muy lenn ci pays arab yi du yëpp sax ndax Maroc bokku ca saltana Oman bokku ca Ordun bokku ca ak yeneen réew ba ci réew yi Asie yu mel noonu ndax ne ñoom démb ci altine lañ doon séentu weer wi waaye xamoon nañ ne dañ ko mën a gis ndax démb fépp ci àdduna ci teratuwaalu àdduna bi foo dem weeri dafa njëkk a so jant bi senegal weer yi sona deux minutes jant bi doo a so sona deux minutes jant bi door a so bu dee fi mu ne Arabie Saoudite yenn gox yi weeri yi sona douze minutes jant bi door a so yenn gox yi quatorze minutes jant bi doo a so yeneen réew yi comme waxtu yi nañ dugalantee rek kon fi démb ci àdduna bi amul benn teratuwal benn gox gox mooy réew mu nekk fa mu tàmbalee ca penku ba ak fa mu yem ca sowu ba amu ci benn gox ci réew yi boo xam ne démb ba jant bay soo fekk na weer jiitu na ko bu yàgg may réew mi weer wa génn réew mooma démb Sénégal bi jant bi soo fekk na weeru génn Sénégal kon waxaalewuma ay Mali waxaalewuma réew yi ñu féete eh, Afrique yi nekk ak ñoom te boroom xam-xam yépp tamit d'accord nañ ci sart yi nga xam ne moom lañ tëral ci ndax weer nan lañ ko war a mën a gisee bu fekkente ne machine a koy gis wala bu fekkee ab euh, bët a koy gis loolu tamit science jàngale na ko ndax jëmmi weer moom ci liñ xamoon ci diine lislaam du saxee ci appareil maanaam xool ko ci appareil gis ko ne weeru tàmbali na loolu ci ru'yatu sarixiya xamuñu ko amul jeexit ci njàngalem yonente bi ci saxaaba yu tedd ya ridwanullahi alayhim ajmahin euh, ci mboolem euh, borom ñeenti ngir yi taabixiin yi ba ñi fi mujj ginnaaw boroom xam-xam yépp kenn ku saxal ci ne weer yi nañ ko sukkandiku ci gis-gisu appareil amul appareil bi dañ koy dimbalikoo ngir xam fi weer yu toll astronome dañ koy dimbalikoo ngir xam situation yi weer yu nekk ak jant bi weer yu nag moom la yàlla bind muy wër suuf si ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent virgule cinquante trois loolu boroom xam-xam kenn wutewu ci ñu war ko séntu saa buñ ko séntu ñaar fukk ak juróom-ñeent rek xamal ne weer yi wëragul na suuf si ba toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yooyu yu tegal virgule 3 wër googu mu wër suuf si nag buy door di tàmbalee feeñ nga xam ne moom la alxuraan di junj ci wal xamaru manaasi la mu am ñaar fukki wàccuwaay ak juróom-ñett wàccuwaay bu ne dañ na ci fanaan genn guddi amul benn wàccuwaay ci wàccuwaay yooyu bu weer wi di fanaan ñaari guddi genn guddi la cay fanaan su demee ba ci ñaar ko juróom-ñetteel ba nag foofu lañu tuddee juddutal weer juddutal weer maanaam weeru judd weeru judd luñ ci jublu mooy weer wi day topp jant bi léeg mu jege ko léeg mu sori ko bu àggee ci ñaar fukk ak juróom-ñett nag dafay sës ci jant mu sës ci jant bi rik làngoog moom nga xam ne digganteem jant bi 7 degré lay doon subaa nag leeru jant bi da koy gànd ba ñun waa suuf ko mën a gis soo xasee jóge ci diggante boobu nag nga xam ne moom lañ tuddee al muhaaq lañ tudd lañ naan weer wi na mooy léegi jant bi bàyyi na mi ngi tàmbalee sori jant bi tuuti waaw mi ngi tàmbalee sori jant bi tuuti léegi nag foofu la xam ñëwee nag jàngale naka lañ mën a gise weer wi bu neetalee ñaar fukk ak juróom-ñett dafa am lu ñu tuddee juddutal weer ci ngoonu ñaar fukk ak juróom-ñett lay am jëm guddi ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu mooy tax weer wi léeg ñu koy mën a gis ak bët léeg-léeg duñ ko mën a gis ak bët léeg ñu koy mën a gis ak machine léeg-léeg duñ ko mën a gis ak machine machine mooy juntukaay ndax ci bu teelee juddu ak bu yeexee juddu bu neetalee ñaar fukk ak juróom-ñett weeru juddu ci saan ci takkusaan wala balaa timis wala bu julee timis ba noppi wala ba minuit diggante boobu fu fi weeru juddoo rek bisu ñaar fukk juróom-ñeenteel ba weer wi day neex a gis ndax day fekk fañ koy séentoo ji weer wi am dis waxtu lu bari ndax dafa bokk ci sart yi nga xam ne al mexyaar al felek yi nattukaay bi nga xam ne moom la astronomie yooyu yëpp d'accord international nga xam ne ci lañ d'accord mooy day fekk ne weer yi fi mu juddoo mooy fi mu teqal ko jant juddu mooy teqal ko jant bi ndax su ne juddutal nit mooy bu génnee ci biir waa waajuram weer yi bu langoog jant bi ba jant bi bàyyi ko nag foofu mu ko bàyyee ba fañ koy séentoo loolu lañ tudd juddutal weer waaw mooy wilaadatul xamar mooy fi weer jant bi nga xam ne da koo sës rikk ba waa suuf mënuñu koo gis ndax leeru jant bi ak sës gi sës ci jant bi su ko defee foofu nag bu tàmbalee teqalikoog moom rek ñu ne weeru judd na léegi foofu mu teqalikoog moom nag ba keroog ñu koy séentu waxtu la ñu xool bu fekkentee ne mat na fukki waxtu ak juróom fukki waxtu ak juróom su boobaa boobu benn la ci mooy na fekk na mat na fukki waxtu ak juróom li gën a wér ci astor nga xam ne ñëpp d'accord nañ ca bari yoo may mais li nga xam ne moom xam-xamu science bu mujj bi accord nañ ci ñëw guma nag man ni ma ko natte sama bopp nga xam ne maa ngi koy topp su ko defee bu fekkente ni fu mujjudoo ba fi ñu koy séntoo am na fukki waxtu juróom mooy quinze heures de temps loolu benn na fekk mu mat bi ci topp mooy distance bi mu soree jant bi distance bi mu soree jant bi na mat sept degré waaw diggante santaru weer wi ak santaru jant bi na mat sept degré pour bët mën koo gis laay wax ñëwaguma ci li appareil mën a gis ndax lu bët mën a gis moom appareil waxaale wu ma ko waaw sept degré na fekk tamit yëkkatu bi mu yëkkatu ci gox bi mooy fi nekk ci asamaan si na mat lu mu gàtt gàtt six degré maanaam cinq ba six degré na fekk tamit. li jant bi njëkk a sowe moom weer wi ginnaaw bu jant bi suuxee nga xam ne bët war na koo mën a gis bu fekkee bët ñu normal na tàmbali ci li gën a gàtt mooy vingt minutes li gën a gàtt mooy vingt minutes su melee nii daal boroom xam-xam yépp d'accord nañ ci ne bët mën na koo gis ànd ak nag na fekk asamaan si set na fekk xiinut na fekk asamaan si poussièrut na fekk am amul ay saxaar te ñi koy séntu tamit taxaw ci place bañ ko war a séntoo ca yooyee jamono ndax weer wi day daw xaarul kenn dafa am fu mu tàmbalee am fu mu yem dafa mel ni oto ñu ne kat dix heures lay départ dix heures cinq dana jaar Touba ñu war a dugg dix heures cinq lañ koy xaar fii suñu suñ bàyyee ba dix heures dix dañuy fekk oto ba dem weer wi noonu la mel boo nekkee war a noddu timis noddoo timis ba mu neexal nga noddu timis julli ne fa di def say lawraat weer wi du la xaar weer wi dafa am temps du xaar kenn ndax day daw cercle bi ko yàlla teg asam sa wal xamar ku mu ngëgëri li ajli musamman cercle boobu du ko wàcc moo tax suñ ko waree séentu ñiy séentu weer buñ ci defee farlu dañoo war a xam heure bi ñu war a noddu timis jàkk yi xam ko ñu noddu timis suñu jullee tamit dañoo war dem séntu ji ko tey itam mën nañ ko séntu avant ñu jul timis mooy jant mën rek diggante boobu sama neen sa fee séntu weer wi su ko defee nag loolu mooy sart yi nga xam ne pour mën a gis weer nga xam ne borom xam-xam yi yëpp kenn wuute ci li ko dalee ci boroom xam-xam yi yëngu ci wàllu astronomie fii ci Sénégal ba ngay génn Afrique gépp ba ngay dem Asie ba ngay dem Europe ba ngay dem Amérique rawat na réew yu naar yi nga xam ñoo ne ci monoroya bi muy sarxul awsat astronomie yi nekk Arabie Saoudite ya nekk Koweït ya nekk Bahreïn ya nekk Imarat ya nekk Égypte ya nekk Tunisie ak yeneen réew yi ci des nga xam ay réew yi fu mel ni Iran Indonésie euh, Pakistan Afghanistan ba ngay dem Inde ba ngay dem siin benn boroom xam-xam bu ci wuute ci loolu amut pour weeri bët mën koo gis ci sart yii mooy na fekk na weeri fi mu juddoo mooy fi mu teqal ko jant bi ñu koy tudde mu xaq loolu day am ci ngoonu ñaar fukk ak juróom-ñett nga xam ne weer wi jeexal na euh, jeexal na manaasi li muy jaar mu ñaar fu juróom nga xam ne matal na ko léegi war a juddu nag daal di bi foofu mu sës jant ba war a taqale koog moom ba fañ koy séentoo ji ca ngoonu ñaar fukk lu mu gàtt gàtt nga xam ne amul ku ci wuute mooy na fekk ne diggante bi mat nag quinze quinze heures de temps mooy fukki waxtu juróom na fekk na weer tamit sori na maanaam ci am na ci maanaam nekk na ci jaww ji maanaam sor na ci ci euh, cercle jaww ji mooy ci gox bi ci kaw ci asamaan si yéegi yëkkati ci asamaan si lu mu gàtt gàtt cinq degré jëm kaw na fekk na tamit sori na jant bi lu toll ci sept degré jëm kaw lii mooy li nga xam ne xam-xam yu bees yépp yu mujj yi ak technique bi àdduna toll muy satellite yi ñuy jëfandikoo ci àdduna yëpp nga xam ne moo ñu permettre ñu mën a jëfandikoo portable moo nu permettre ñu mën a jëfandikoo montar moo ñu permettre ñu mën a dugg ci avion yi moo ñu permettre jumtukaay yi jëfandikoo yëpp muy électronique muy électricité ak bu mën a doon xam-xam bii tollu tey moo moo moo natt loolu ci jumtukaay yooyu lañ ko natt ba muy lu wér boroom xam-xam tamit kenn wuute wu ci ci boroom xam-xamu science yi moo xam ñi gis wàllu astronomie ak ñi gëstu yenn xeeti xam-xam ñëpp xam nañ ne nii la tëdde foofu amul problème na fekk ne fi weer wi teqal ko jant bi ba fi mu ba ba ko war a séentoo na fekk ne mat na fukki waxtu juróom li ci gën a gàtt bu ko yéesee mënta nekk bët mënatu koo gis na fekk na tamit maanaam li ko jant bi fi jant bi sowee ak fi weer wi sowe lu mu gàtt gàtt na mat vingt minutes li astronomie décidé nga xam ne kenn wuutewu ci mu des nag ndax jarbo bi ndax bi ñu ko jarboon wax wér na wala wérut mu des loolu waaw ndax xam-xam day jàngale ba noppi waaye liñ ci jarbu mu wér nag looloo gën a ëppati solo loolu moom laa ci laa bëgg a ñëw bu li weesoo kon liñ jàngale ci astronome nga xam ne astronomie yëpp d'accord nañ ci amul ko ci wuute ci astronomie yu dund ca siècle bi diggante mille huit cent neuf ba ci deux mille vingt-quatre bii bépp borom xam-xam bu fi yëngu ci astronome muy européen muy américain muy africain muy asawien kum ci mën a doon d'accord nga ci ne fi weer wi di teqal ko jant bi ba fi ñu koy séentoo lu mu gàtt gàtt pour bët mën koo gis sart bi ci njëkk mooy li tax mooy nekk bi ci njëkk sart bi ci njëkk mooy na mat fukki waxtu juróom na ko jant bi njëkk sowee lu mu gàtt gàtt vingt vingt minutes vingt minutes ñaar simili na weer wi yëkkati ko ci jawwu ji lu toll ci cinq degré jëm kaw na sori jant bi lu mu gàtt-gàtt sept degré jëm kaw ànd ak nag na fekk ne asamaan si xiinut asamaan si puseerut te ñi koy séntu séntu ko ca waxtu wañ ko war a séntoo bu fekkente ne jant bi dafay soo ci dix-neuf heures la jant bi so léegi jant bi sonn dix-neuf heures seize ñu war a julli timis mais jàkk yi nodduñu siis yooyu ñu teg léegi te fekk na jant bi bi mu sowee dix-neuf heures six diggante fi jant bi sowee ak fi weer wi sowee trente cinq minutes la léegi jant ba sonna dix-neuf heures six ñu war koo séentu nodduñu timis teg ci ñeent ñeenti ñeenti minutes léeg-léeg teg ci fukki minutes door a noddu timis fukki minutes yooyu nga ci teg weer wi ma ngi koy jàll kon ñi séentu weer dañu war a xam loolu commission yëpp man dama koy nat parce que damay toog fii ma xam ne jant bi sona du ma dégg genn nodd ma toog juróom-ñetti minute léeg-léeg ba fukki minute door a dégg ak nodd léegi fukki minute yooyu nag bu ñu waree séntu weer wi weer yi du la ko xaar weer yi du la ko xaar avion bu war a deeko la dix heures du xaar ku nekk ci benn dëkk dix sero bu la fa fekkul boo ñëwee fekk abion bi dem léegi nag jant bi soo dix-neuf heures euh, seize te mook weer wi trente cinq minutes dañu war a rawantee nga toog fukki minute noddoo timis fukki minutes yooyu boo ko jëlee ci trente cinq lu ciy des vingt cinq minutes nga noddu timis julli def say subhanallah alhamdulilah allahu akbar lu mu gàtt gàtt diggante fi nga nodd fi ngay julli mën naa jël huit minutes am na sax mën na ko ëpp huit minutes boo ko tegee ci fukki minutes yee luy des da ngay fekk weer yu wàcc foo xam ne ci jaww ji cinq degré yi nayoon day fekk mu ne ci deux degré kon kii séntu weer tamit dafa war a xam ànd bu sàtt yëpp mate dafa war a xam heure bi ñu koy séntu weer du xaar kenn bu bu bu traversé Sénégal day traversé Sénégal ndax bu jógee Sénégal Amérique la jëm ndax njëkk wut Sénégal weer yi day deparé fële ca euh, New Zealand ca Auckland euh, bokk na Auckland gi ci des ndax réew yi ñoo bari ay tur te nuroo day ñetti tur yoo xam ne day am ci réew moo xam am ñetti dëkk yu nuroo ay tur Auckland bi nekk ci New silanda fa la weer di déparé ndax ñoom ñoo ñu rawee. fukki waxtoo ñett amul benn réew bu rawee Sénégal fukki waxto ñett bu dul Nigéland foofu weer bu déparé foofu nag su weesoo ak Nigéland noonu la koy def ba agsi Sénégal jaar Chine jaar Inde jaar Yémen doo jaar Arabie Saoudite ak réew yi comme ay Émirats Arabie Saoudite ba keroog muy agsi Mali ba keroog muy agsi Sénégal bu agsi Sénégal weesu ko dem. Euh, fële ca kaari bi ci Amérique kon weer yu nekkul lu taxaw du xaar kenn waxtoom bu jotee te séntu woo ko meen bu nekkoon ci situation yi ñu ko mën a gisee yëpp te dañ ko war séntu wuñ ko mbooloo mi ko war a tamit mu nekk ñoo xam seen i day neex ndax magi jëm moom bu ñu séntu weer mag moom surtout jamono ji ñu toll nga xam ne écran sax koo xool bu baax lu leen weesu duñ ko mën a gis fokk ñoo am ay lunette wala ay weer doon ko mën a gis kooku bu dee mooy séntu weer weer du ko gis am na ñoo xam ne weeru ñaar fan dong lañ mën a gis kon yooyu itam dafa mat ñu bàyyi xel bu fekkee dañoo bëgg weer wi mu tegee ci xam-xam Sénégal bañ ci am jafe-jafe kon bi ma njëkkoon wax mooy na fekk na fi jant bi feeru juddoo fi mu bàyyi ko fi mu taxal ko jant bi mat na lu mu gàtt-gàtt euh, quinze heures de temps mooy fukki waxtu juróom na ko jant bi sowee njëkk a sowee lu mu gàtt-gàtt vingt minutes na weer wi kawee ci jaww ji lu mu gàtt-gàtt cinq degré jëm kaw diggante fi fi weer nekk ak jant bi tamit seen ñaari santar yi na mat sept degré dañ tudd al istitaala al ak li ñuy tudd al irtifaax benn bokku ci su ma melee nii te ñu séentu ni ñu ko war a séentoo loolu la xam-xam jàngale ne bët mën na koo gis su weesoo loolu benn bëtu doomu aadama su ko matut mënta teg weeru bët ah, rawate na nag weer woo xam ne daa suux ba noppi jant bi door a suux ay heure la yoo xam ne nit ñi dañ koy def àdduna bi réew yëpp ba ci senegal gi dañ koy gis nga taxaw di séntu weer te avant ngay taxaw di séntu weer fekk na weer wi weesu na Sénégal soo gis looy gis problème nekk noonu kon loolu mooy li bët mën a gis xam-xam jàngale ko kon loolu lañ soxla ci astronomie mais du astronomie mooy saxal weer day indi condition yi tax bët mën koo gis lii nag boroom xam-xam astronomie yëpp ñoo ci d'accord am na kuréel gu ñu tuddee al masroxul islaami li rasdil ahilla nga xam ne ku ñu wax euh, Mouhamad Chawkat moom moo nekk dirigeant bi moo jiite tamit centre euh, euh, astronome international bi nga xam ne addu bépp ko séq masroor boobu projet boobu li ci nekk ay boroomi xam-xam képp waxuma nag réew yu koy jëfandikoo mat na junniy boroomi xam-xam ak juróomi téeméer li ci nekk ay partenaire mat na ñaar fukki junni partenaire ak ñeent ñu taxawal ko 1998 ñuy saytu wàllu weer yi sart yi ci lañ ko nangoo boo demee ci mboolem wakaalaat yi jëfandikoo nga xam ne ci Europe nga xam ne ci la ci la ñoo yor satellite yi ñooy tax ñu mën a seetaan télé ñoo tax ñu man a ne ci réseaux sociaux yi muy ci whatsapp yi ngay dégg te euh, fii may wax ngeen di ko dégg muy facebook bi muy inst muy xeet yi jëfandikoo yëpp ci internet satellite yi koy doxal xam-xam bi ko tënk moo d'accord ci lii munoo munoo jëfandikoo nag xam-xam bi nga xam ne sa dund gépp ki nga ko def moo nekk ci école yi tënk la moo moo defar yi moo fi indi courant bi moo fi indi internet bi moo fi indi jumtukaay yi ñu jëfandikoo yëpp ni ngay tabaxee sa kër la ci lépp nga di ko def ba noppi nag la xam-xam boobu jàngale nga bëgg ko weddi nga sa bànneexu bakkan kooku mënta nekk te itam muy lu ñu natt te nag ñoom rek jiituwuñ ci am na borom xam-xam yu leen fi jiitu woon natt ko comme nii la même chose muy lu wér danaa ci ñëw ci biir waxtaan wi léegi nag nii xam-xam jàngalee nga xam ne bu ñu demee bët mën na koo gis kon lu bët mën a gis moom machine taxul ñuy wax ndax lu bët mën a daw man naa daw ay junneem kon télescope taxul may wax caméra LCD yooyu ñuy jëfandikoo léegi taxul may wax waaye lépp lu bët mën a gis moom xam ngeen ne longoor képp longoor yi nga xam ne dañ koy mu am ñaari bët yi xam ngeen lu bët mën a gis longoor mën naa gis la ko raw waaw su bët mënee gis 500 euh, mètres longoor mën naa gis 2 kilomètres ba 3 kilomètres ça dépend ci niveau bi kon machine yi taxul ñuy wax. léegi nag nan la weer yu tëdd nga xam ne bu ñu demee machine mën na koo gis su ñu demee machine mënatu koo gis mooy sart yi may bëgg a wax nga xam ne ba tey tamit adduna bépp maase nañ ci d'accord mbooleem boroom xam-xam yi fi nekk yépp te yëngu ci wàllu astronome muy ay julit muy ay yéefar muy ay siif ñëpp d'accord nañ ci kenn amu ci wuute mooy lan na fekk na fi weer wi juddoo mooy fi mu teqal koo ak jant bi ak fi ñu koy séentoo na fekk lu mu gàtt gàtt mat na maanaam euh, euh, fukki waxtu ak ñett jëm kaw mais bu ko yësatee machine du ko génne ku loo ko wax rek daa def daa wax li ko neex fi weer yi teqal ko jant bi ba fi ñu koy séentoo suñ ko nattee ci ay waxtu ëppul fukki waxtu ñett jëm kaw bu tàmbalee foofu jëm kaw machine la ko machine di man a gis mais bu ko yësee mënatu koo gis wala nga tàmbalee fukki waxtu ñett ba ngay dem fukki waxtu ak juróom ba jëm kaw foofu bu tàmbalee ba ngay weesu foofu machine man na koo gis boobu mooy sàrt bu njëkk bi ñaareel bi pour machine mën koo gis machine su ma ko waxee waxuma longoor yi gars yi di yor nii di kaf télescope yu mag yi nga xam ne moom la ñuy dëpp ci jaww ji di xam ba xam dana tàng wala dana sedd dana taw wala du taw di ko dëpp ci suuf si di xam li fi nekk lépp ci or ci wurus ci jamaa ci weñ di ko dëpp ci nit ñi di mën a génn seen tawat yi nekk seen biir yi wala seen bopp yi nga xam ne ñoo gën a garaaw laboratoire yi appareil yooyu nga xam ne li muy li muy photo da koy jël en distance ñetti téeméeri junniy kilomètre la koy jël ful ko téeméeri yoon door ko photo jox la ko machine yooyu pour mu mën a gis weer day fekk ne fi weer yu juddoo fi mu teqale kook jant bi ak ba fi ñu koy séntoo day fekk mu mat euh, lu mu gàtt-gàtt fukki waxtoog ñett jëm kaw ba ci sa mooy ne fekk na lu mu gàtt-gàtt ba tey tamit na fekk na fi fi fi fi jant bi euh, euh, soowee ak fi weeru yu soowee lu mu gàtt-gàtt dana mat fukki minute ak juróom jëm kaw te machine yu foor yi nag laa wax ba ca desaat mooy euh, leeraayu weer wi asafurla ba ca desaat mooy maanaam bu weer wi sowee li li weer wi di sowee li weer wi di soree jant bi na fekk ne lu mu gàtt-gàtt na mat cinq degré jëm kaw ni weer wi di yëkkati koo ci jaww ji sori gi mu sori ci jaww ji na fekk ne lu mu gàtt-gàtt na tàmbalee kaat jëm kaw su melee nii ba tey moom la ko machine télescope di man a gis lu télescope mënut a gis nag lu ngóor waxaaliwu ma ko miqraab ak minsaar yu ndaw ndawaan yi waxaale wu ma te télescope yu mag yi du télescope sax xaad yi télescope yu mag yi waxuma télescope yu ndaw ndawaan yi nga xam ne bo amee ay cinq cent mille ay millions am ko déedéet télescope yu mag yi nga xam ne dañ koy lënkale ak satellite bi comme yi naar yi di séentoo gis ngeen ko démb fële ca euh, euh, Sodir Hota Sodir ak fële ca Tumir Abdoulaye Al Khoudayri ak ñooñu di yor télescope yooyu nga xam ne dañ koy branché ci machine yi branché ko ci internet bi lënkale ko satellite télescope yooyu su weer wi demee nii mën nañ koo génne moom bu fekkente ne weer wi sori na jant bi lu toll ci euh, cinq degré jëm kaw bu fekkente ne weer wi yëkkatut na ci jaww ji lu toll ci euh, quatre degré jëm kaw bu fekkente ne weer wi fi jant bi sowee ak fi koy séentoo lu mu gàtt-gàtt euh, mat na fukki minute juróom jëm kaw na fekk weer wi fi mu tàqale ko ak jant bi ak ba fi ñu koy séentoo lu mu gat gàtt mat na fukki waxtu ak ñett jëm kaw bu dee appareil waaw lii mooy li ci xam-xam saxal ci wet googu kon ñaari côté yëpp gis nga ko yii xam-xam saxal yëpp nag amutoon démb ànd lépp day fekk ne na jant bi njëkk soo weer wi waaye démb moom yàlla daa dogal ci àdduna bépp nag ku mu ne ngaa def say gëstu say recherche li ñuy wax dara du ci dañ da xam-xam la te nii ni nii ko science jàngee alxuraan ko ci jiitu alxuraan jàngale woon na doxeenu weer wi jàngale montar heure jàngale lépp njëkk science di ñëw maanaam ni mu rawee science sax mëneesu ko misaal lii mooy sart yi nga xam ne kenn wóotewu ci boo demee ci li ñu tuddee markasul falak ak dowali centre euh, astronomie internationale nga xam ne adduna bépp ku séq sart yi lañ tëral masroxul islamique sart yi lañ tëral boroom xam-xam yépp su weesoo yii nag am na yeneen i boroom xam-xam yu tëral yeneen yañ tëral sax moo gën a jafe moom moo am daa gën a sore yii ndax ñoom bañ koy tëral machines yi amagul technique bañ mën a xam tellement ndax bu fekkee machines yi ñu am jamono ji ak liggéeyukaay yi àdduna bi am yépp ci ay moyen seconde bu nekk ñi ngi topp weer wi amul benn seconde waxtu wu ne ñu ngi koy def direct satellite yaa ngi ko tiim suuf si li ko tiim ci satelit kenn mat na juróom-ñett di ko observé planète yi ngay seen biddiw yi ngay seen yëpp li fi nekk ci ay satellite ci jaww ji kenn mënu la wax nu mu toll ndax bari gum bari weer yi ñu ngi ko topp seconde par seconde di ko topp minute par minute di ko topp waxtu par waxtu di ko topp bis par bis di ko topp semaine par semaine di ko topp weer par weer di ko topp at par at mënta réer ba xam waxtu waree muuru waxtu waree génn fu mu toll loolu moom xam-xam dépassé na niveau boobu weer yi mënatut a réer kenn ci àddina xanaa ku jàngul xam-xam ba noppi nangu koo jàng wala nga am ak naqari der goo xam yaa ko dugal ci diini ci lii mooy li xam-xam jàngale ci côté boobu léegi nag te tajriba jàngale te itam xam-xam bii ñu xam-xamu science suñ ko waxee waxuñ ne tubaab bi tubaab bi defuñ xam-xamu science dañ ko fekk dañ ko fekk ci ay téere ñu sotti ko traduire ko français nit ñi jàpp ne ñoo fi def xam-xam am matériel am mu gën a tee kiimaane mais lislaam ci jiitu lislaama ko jàngale waaw lislaama ci jiitu lislaama ko jàngale téere yaa ngi fi fees dell nga ne foo dem fekk ko fa dafa dañ ko yeesal rek mu gën a dëppook jamono waaye amu ci lenn loo xam ne tubaab yi dañ ko fee ci wet googu ñi nekkoon ci biir lislaam jàngi alxuraan maîtrise ko torop ñoo fi trouvé nañ xeeti xam-xam yi yëpp ay téeméeri téeméeri at tubaab yi door ci door ci agsi kon yooyu yëpp fi ne dafay mat euh, xam ci euh, bu ñu delloo ci euh, Al-Biruni yi ñu bari ci ñii gëstu xam nañ ko ci côté côté xam-xam Abu Rayhana Ahmad Al-Biruni faylaasuuf la woon philosophe woon lim bind ci xeeti xam-xam yi tey àdduna ñu koy jëfandikoo bépp xam-xam bu dellu ci astronomie Abu Rayhana jiitoo na ko tubaab yi ay siècle parce que moom 13 décembre 1048 euh, la faatu kon loolu yàgg na kon boobu benn tubaab waxagul ci xeeti xam-xam yi waaw benn tubaab waxagul ci ak faatoom képp 13 décembre la fukki fan ak ñett ci weeru décembre atum euh, junni ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci la faatu bépp xam-xam bu ñu wax ci astronome jiitoo na ci tubaab lu bari noonu lu tol noonu muy suuf si di wëndeelu booba la koy wax ba muy dund science ci door ak si tey nii biddiw yi doxe xam-xamu euh, maternité ak bu mën a doon booba la ko waxoon booba la ci bindu ay kàggu euh, xam-xamu docteur faj lu aju ci hôpital lu aju ci clinique ak lépp lu ci aju booba la ko waxoon waaw booba parce que moom mi ngi juddu neuf cent soixante-treize miladiya atum juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ak juróom euh, ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci la judd boobu la téléphone téere yi jàngale lii bi jàngale faj wàllu hôpital médicament lépp lu ci aju bind ci ni suuf siy doxe ni mu waree jant bi ni ko weer toppe bind ci yeneen yu bari bind ci philosophie bind ci géographie euh, géologie sociologie bindu ci yu baree baree baree baree bare yoo xam ne tey buñ ko tegoon ci taaba ji fii nga ne déedéet Abu xaana Muhammad ibnu Ahmad al Biruni tubaab yi muy français yi ak américains yi boroom xam-xam yi ci mag yëpp ñoom dañoo d'accord sax ci ne moom Abu xaana moomu mooy xel mi gën a rëy mi nga xam ne moom mi xel mi gën a rëy nga ne mu wàcc wàccaguñ ci kaw suuf Abu Rayhaana moomu la ñoom loolu lañ jàpp ñoom waaw waaw waaw ki gën a rëy xel ci àdduna koo xam ne wàcc na ci kaw suuf si ñoom nee nañ abu rayxaana la ndax xam-xam yi ñu def ni ko yëpp tey moom da da leen jiitu waaw treize décembre la faatu mille quarante huit miladiya waaw atum junni ak yenn fukk ak juróom ci la faatu te xam-xam yi ñu jëfandikoo yëpp tey ay kàggu la ciy bind astronome bi am na téere bu mu ci bind tudd ko miftaaxu xilmul fëlëg moom la tubaab yi sàcc ñëpp sàcc ko tey di ko jëfandikoo ci àdduna di ko jëfandikoo ndax ñoom moom bi muy dund ci yooyu jamono ñoom xeeti borom xam-xam yëpp bi ñu dund ci yooyu jamono xam-xam yëpp bi ñu ko doon wax yéen yéen seen moroomi jullit dañ leen doon reetaan ak di leen rey def leen ay sindiix ndax ñu bari boo boo waxee ci lu weesu julli weesu koor weesu la neen ñu ne yaa ngi indi baatin loolu moom lu foofu la lislaam amee woon problème loolu jafe-jafe bu rëy la bépp xeetu xam-xam boo xam ne dafa aju ci euh, wàllu appareil tàmbale ko ci weer yi ñuy takk tàmbale ko ci caméra yi ñuy jële dara ak lépp lu er, nga xam ne mooy jàngale ni ñu opéré nit opéra maanaam ni ñuy rajo wala ni ñuy analyser appareil yi ñuy jëfandikoo télescope yi ñuy xoolee tey ci adduna bi ak xeet yooyu yépp ibnul haysam mooy ki ko njëkk xalaat mooy ki ko njëkk bind ci ay téeréem bomb yu ñuy liggéey nucléaire bi ñu jàpp ne tey dafa sosu rek ci biir deuxième guerre mondiale antar euh, la safan borom xam-xam yi nga xam ne ne ñoo nekkoon Angleterre euh, fee almaañ ñu dawee fa làqu ñëw Amérique boroom xam-xam bi dëkkoon Allemagne Albert Einstein xelal américain bu ñu bëggee éliminer Hitler nañu créer bombe atomique nucléaire dóor ko ko ñu ne léegi foofu la sosoo déedéet déedéet Ibnul Haysam jiitu na leen ci waaw jiitu na leen lu lu yàgg a yàgg waaw dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy falsifier euh, li ñuy tuddee taarix waaw parce que Ibnul Haysam ak faatoom képp mi ngi faatu le 6 mars 1040. atum junni ak ñeent fukk la faatu ci xëj miladiya waaw kon bi muy trouvé nucléaire nan lañ koy composé matière zircon boobu nañ lañ koy génnee nan lañuy fexe ba mu nekk bomb li koy jàngale moom bi mu koy bi koy bind ci ay téeréem ak bi ko tubaab yi xam presque mat na juróomi téeméeri at juróomi téeméeri at jàpp juróom-ñetti téeméeri at waaw parce moom mi ngi faatu atum junni la faatu ak ñeen fukk te at mille neuf cent yi ci lañ turé nucléaire kon juróom-ñetti téeméeri at dox na seen diggante ñoom te lii ay lettre la yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci biir ci tubaab bi nga xam ne kon l'islam lépp moo ko créé mais nag woyof bopp gi ak li may wax rek soo waxee lu génn diine ji lu génn julli woor ak yi ñuy jàpp ni boo waxee leneen yow da ngaa indi xam-xamu euh, tuumaal la seen ndiix tuumaal la ak kéefër ray la at la si jamono lakk seen i téere loolu mooy li xañ lislaam ndam li mu waroon am ci àdduna jamono ji jiite ko loolu mu leen ko xañ kon xam-xam bii ñu topp muy xam-xamu weer moom moo njëkk a créé xool na nañ moom fexe ba nit mën a gis leneen ci bëtam lu gën a leer mu dem defar ay kawsu yu fa nekkoon ay weer taqale ko di ci xool defar saaru télescope pour mu gën koo jegeel image bi moo ko fi njëkk a euh, indi waaw Ibnul Haysam ak lépp luy xeetu rajo caméra télescope yooyu yëpp moom moo ko fa indi te moo ko bind ci ay téere xam-xam bii ñu liggéey ay bomb muy nucléaire bii niñ koy composé ci moom lañ ko sàcc te moom mi ngi faatu mille quarante te ñu ngi ko tuddee mille neuf cent te jëmmi Albert Einstein sax indiwul ne moo nekkul ne moo indi xalaatu bombe nucléaire bi am na ñu ko ci jiitu ci boroom xam-xam yi nekkoon Allemagne euh, Cissé bi du loolu dama ci bañ a guddal waaye tubaab yi créé bomb yi sax jiitu na nañ ci lu baree baree bare te loolu ci xam-xam la sax boroom xam-xam yi ma tudd nag sa sart yi ñu tëral ci wàllu gi gisinu weer noonu moo dee seen téere noonu la fa nekkee ñoom nag bañ koy wax ñëpp da leen a weddi woon ray leen tumal ak seen ndax ray leen bi ñu bi ñu bi ñu xam nga euh, ci wàllu science ci wàllu astronomie waa Copernic Copernicus gi Polanda ki ñuy tuddee Nicolas Copernicus nga xam ne moo jiitu Galileo mi nekkoon itali nga xam ne dañoo jàpp ne Copernicus ñoo ñoom te tubaab li li ñuy jàngale ne moo njëkk trouvé ne ni suuf si doxee ni weer yi doxee ak jant bi ak jant bi moo nekk markasul kawn loolu wéru demewul noonu Copernicus mi 1967 fa mu dëkkoon ñu di ko suli di xool ay ay jeexit ci lañ fekk leetar yu ay téere yu bari yoo xam ne ndekete yoo ku ku ñuy wax euh, Ibnu moom moo yooyu ndek moom ci moom la doon toxale di ko askaneel boppam ibnu saatir ñiy gëstu ñëpp xam nañ ko moom bokk na ci astronomie yi gën a mag tamit ci àdduna bi yoo xam ne dañoo bind loo xam ne ba tey mi ngi dox ndax xam-xam mi yeesuwut ibnu saatir ku bari woon la waaw ku bari woon xam-xam la lim doon bind nag moom la Nicolas Copernicus sàcc maanaam fexe ba jël ko traduire ko ci seenu làkk di wax ne moo koy wax ba Nicolas Copernicus moom moom fi jugee Galileo ñëw jël même xam-xam boobu a Giordano Bruno ko jiitu te italien yi rey ko ci atum 1600 Giordano Bruno tamit ñëw jaar ci tànki Copernicus ndax bu njëkk lan jàng ci tawreet euh, ca ca injil boobu dafa wuute ak li xam-xam saxal àdduna musul dañ di am problème ci diggante diine ak xam-xam. diine di éliminer xam-xam ci yooyu jamono di rey borom saa boo waxee loo xam ne ñi nga jamono xamuñu ko ñu tuumaal ne dangaa doon bu yëfër dangaa weddi yàlla kii xelum seetaan la yor da yàq nit ñi et cetera rey la laka say téere moo tax Giordano Bruno bi mu ñëwee topp xalaati Copernicus italien ci yooyu jamono euh, Roberto Bellarmine mi nga xam ne moo nekkoon jiite woon atte yi ci yooyu jamono atum di ko nax di ko nax ba jàpp ko ñu di ko wërale ci mbeddi Rome yëpp tàndar ko taal ko ay pëna ngeen ne koy da ngaa wedd injil ndax li ngay saxal ni ci science injil la ko waxul loolu la neen la wax te mooy tey ñëpp xam nañ lam la mu wér ginnaaw lañ ko door a nangu ne dañ koy nangam nangam di réccu Galileo ñëwaat confirme waat loolu ci wàllu xam-xam astronomie moom nag dafa def ay pexe parce que bi mu tàmbalee jàng xam-xam di wax bind benn téere tudde ko a rasoolu naj mii génne ko ci weeru mars atum 1616 daa dem ci biir euh, Rome fekk fa ay famille yoo xam ne famille yu am doole lañ mu adapté fa boppam nee ñaan pour mbokk ci moom ngir bañ ñu mën ko néewal doole médecin si foofu la adapté boppam di baagante diggante Rome euh, Florensa euh, ak yee ci Italie dëkk yooyu noonu teewut église bi woolu ko ak fa ñu jaar moom tëj ko mettital ko waaye bi mu génnaatee ci kaso bi la këdd tànkam waxaat li mu waxoon tey xam-xam dem ba saxal yooyu yëpp ñu gis ne ko nit diine ñoo ñoo gënoon a xeex xam-xam fekk na boobu lislaam jàngale na ko waaye nag ñi doon ñiy jiite waxtu nekk ñooy am problème ci wet googu ñooy indi yu bëri ndax fekk na alxuraan yooyu yëpp jàngale na ko tey loola tey moom la adduna bi dund ci xam-xam lañ reyoon borom xam-xam yooyu moom la adduna yi dund tey moom la tubaab yi ñëpp yoo bañ dem ba julli ñu mujj dem di ko jigaane ci tubaab yi naari bi dañoo defar oto dañuy dem ci tubaab lépp dañ ko jëlee ci tubaab pétrole bi dañu ko génne sax ñoo koy génne gis nga Arabie Saoudite bi fa pétrole feeñee 1945 ñoo ñëw génne ko Koweït la même chose Irak la même chose te seen borom xam-xam doon jàngale bu njëkk dañ leen a rayoon ñoom ñëpp na ay yéefar lañ booba li ñu wax ëpp na seen bopp yi waaw mi ngi mel comme man ma jëkk tey fii toog fii bëgg a wax dara rek loo xam ne day ëpp bopp nit ñi euh, dañ may askan xam ne euh, mara te fekk na man li may wax xam-xam la euh, mu indi jafe-jafe bu rëy Euh, abul hasan xalaawuddin nga xam ne mooy ibnu saatir moomu nga xam ne mille trois cent quatre la juddu faatu mille trois cent soixante quinze ci euh, miladiya moom xam nga bi muy wax ci wàllu astronomie fi jant bi jaar ni mu rombe buróo ji ni mu euh, jàngar bi ko ci vingt et un ci vingt deux septembre ci vingt et un décembre ci vingt et mars nawet bi di génn noor bi di génn tàngoor bi di génn sedd bi di génn ak jant bi jeng googu mu jeng vingt trois degré loolu moom moo ko njëkk a trouvé pour wan leen leen boroom xam-xam yi newoon ci diine bu njëkk ni ñu rawee tubaab bi ak rawee borom jamono yi du ndànk ibnu saatir laa wax mi ngi faatu mille trois cent soixante quinze la faatu junni at ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki juróom la faatu moom moo njëkk wax ne jàng boobu jant bi jàng jàngate boobu mu def nga xam ne buy fenk ci vingt et un juin dafay jël ci vingt maanaam euh, vingt trois degré ju teg fanweeri minute ak benn loolu mu ngi ko waxoon ci atum mille trois cent soixante cinq la waxoon loolu bi ñu ñëwee ba jamono yu mujj ji 1900 tubaab yëpp ak boroom xam-xam yëpp daje nattaat ko ci satellite gi natt ko ci lépp mu jox leen 23 degré la même chose yu teg 31 minutes xam nga lu ci ëpp 19 secondes ak 8 tiers loolu mooy xam-xam te moom ba mu koy def bëtam la ko doon natte waaye yurutoon jumtukaay amul lenn lu mu doon xoole biddiw yi mbaa muy xoole jant bi lu nat ko ci xam-xam boppam. mille trois cent soixante cinq la abul xasan ali ila xalaw diin ibnu ali ibnu ibrahim ibnu muhammad ibnu muti al ansari ibnu saatir la ñëpp xam ci ñuy gëstu mille trois cent soixante cinq la njëkk a wax ne jant bi dafay dafa dafa dafa dëngulu ci burju yi vingt trois degré ñu ñëw ba atum junni ak juróom-ñeenti téeméer mooy mille neuf cent yi siècle bii dix-neuvième siècle bii tubaab yi daje ak xam-xam bi ñu yor yëpp ñu nattaat loolu ci machine yu ñu yor ak jumtukaay yi mu jox leen vingt-trois degré ya ya ya Ibn Saatir waxoon ak trente minutes ñu gis ne dix-neuf secondes moo ci dollulu moo ci dolli ko ak huit tiers kon nga gis te lii mi mi ngi fi waaw kon nag lii mooy li xam-xam jàngale ci wàllu weer weer bala koy bët di mën a gis ma delsiwaat ci nga xam ne xam boroom borom xam-xam yépp ci d'accord kenn wuutewu ci kuy tënku ci xam-xam na fekk na weer yi fi mu juddoo léegi nag suñu nee juddutal weer mooy lan ci wolof mooy weer bu ñu àggee ci ñaar fukk ak juróom-ñett jëm guddi ñaar fukk juróom-ñett dafay sës jant bi loolu leen tuddi al muhaaq weer yi dafa am juróom-ñetti étape yu muy jaar juróom-ñetti melokaan yi muy mel bu feeñoo ba keroog muy deewaat su àggee ci juróom-ñetteel ba moom la ñu tuddee al muhaaq alxuraan moom la ñu tuddee kal xurjoonil xadiibi bala faaga am na ñu tuddee al xilaalu saani mooy nihaayatu xilaalin fi shahri kasa moom la arab yi wax mooy li ñu tuddee dafa am lu ñu tuddee xëytal weer ñu bari dañ koo déggut olof da koy wax olof moom li wax mooy xëytal weer xëytal weer lan la ci mag ñi jubloon mag ñi dañoo jàngoon diine maîtriser ko torop xam téere yi comme mënuñu koo wax ci arab wàcc ko ci wolof ba nit ñi mën koo dégg xëytul weer mooy bis bi nga xam ne moom la bët di mujj gis weer wi ak bët bu ko weesoo bët mënatu ko teg bët loolu ñu tuddee ci arab xilaalu saani dafa am xilaalul awal mooy bu door a feeñ ak bu demee ba àgg ci ñaar fukk juróom nga xam ne le 22 ci weer wu nekk ba yàgg ñaar fukk juróom-ñaar ci lay dugg ci étape boobu ñu ngi tuddee xilaalu saani nga xam ne bis day tombé ñaar fukk juróom-ñaar foo fajar googu lu ko bët di noppee gis. teewu nag mi ngi fi lu ko tàmbalee ci fajaru ñaar fukk juróom-ñaar googi ba àgg ci ñaar fukk juróom-ñett ba ci ngoon foofu nag lay sës jant bi ndax lu weesu ñaar fukk juróom-ñaar rek day sës jant bi te bu xasee sës jant bi sept degré ak leeram day effacé wu lépp dafay soon dara dootu ko mën a tëj bët amatul couleur bu bu muy am buy mayee ci xam bët mën koo gis wala gisukaay waaw degré bu ko xasee jege jant bi ci jamono jooju dara mënatu koo gis moom lañ tuddee al muhaaq nga xam ne léegi weesu na xëytali ndax bisum ñaar ko juróom-ñaar weer dafay njëkk a décoller jant bi dafay njëkk a dafay da ko fay njëkk a relever maanaam da ko njëkk a jug da ko njëkk fenk su jugee nag yow boo julee soo ba noppi boo ñëwee da ko gis man ñu ko xëytal ci wolof moom la ñuy ci arab xilaalu saani waaw boo demee ci réewu arab yi muy arab yi saoudite muy Égypte muy Tunisie muy Algérie ñëpp lu ñu koy tudde mooy ar ruyatul axira li xilaali saani fii nihaayati sahri nangam moo xam sahru ramadan weeru koor wala weeru mën a doon bis bi ñu koy mujj a gis ak bët loolu rek lañ jublu bis boobu ñu koy mujj a gis bët nag boo indee appareil mën na ko mën na koo gis ñaar ko juróom-ñett ci suba gi buy juge buy buy dekkool buy jug loolu lañ tuddee xëyital weer boo bëggee jàngale te ñi ngay jàngal nekk ay wolof danga leen ko jàngal ci wolof ñu bari nag buñ ne xëytu dañu naan loolu waxi mag ñi la ñàkk xam-xam koy indi koy wax waaw lañ doon jàngale ci arab ñee ko jàngale ci anglais ñee ko jàngale ci français ñee ko jàngale ci espagnol ba juróom-ñaari junni langage si jeex moom la suñ mag ñi doon jàngale ci wolof ndax ñi ñu dëkkaloon ay wolof lañ te booba seen xel neexut te mënuñ leen ko jàngal ci waneen làkk ñu wàcce ko ci wolof comme niñ ko wàccee ci yàlla làkk yëpp muy pël muy séeréel muy tukulóor ba làkk jeex ba juróom ñaar junniy làkk yi mat mag ñi jàngaloo colof tudde ko xëytal soo ko waxee ni ñi ne maa loolu mag ñaa daan wax fekk na xam <laughs> gàtt xam ak woyof bopp foofu la yam xëytal weer wolof dong la liñ ci jubloon mooy bis bi ngay mujj a gis weer wi loolu na ci ñaar fukki fan juróom-ñaar lay nekk moo tax euh, euh, nu tuddati euh, gaawu gaawu xam nga ñun te su ñaar fukk juróom-ñeent dem loon su ñaar fukk nga xam moo ne ñaar fukk ak juróom-ñaar nga xam ne ci la weer wi xëy adduna bépp gis nañ ko bi mu xëy ni ko sénégalais yi gisee ba di ko vidéo ak di ko foto noonu la ko Arabie Saoudite di jëlee boo demee seen panel yi ak seen groupe yi li leen gën a métti te jaaxle loolu ci la bokk nga dem Imaaraat coow loolu moo fa nekk nga dem Qatar coow loolu moo fa nekk nga dem Tunisie coow loolu moo fa nekk nga dem réew moo mën a dem ci réewi yi loolu mooy coow li ñu ne tey ne ñaar fukk juróom-ñett ba noppi ñu gis weer wi ndax ñoom altine la ñu waroon a mars kon dimanche bi moo doon seen ñaar fukk juróom-ñett ba noppi ñu xëy suba fajar gis weer wi loolu mënut nekk fajaru ñaar fukk juróom-ñett képp moo mën a am martaba gis weer wi te du appareil yëpp suba ñaar juróom-ñeent suba ñaar fukk juróom-ñeent appareil yu mag yi bi gën a mag nga xam ne moom nañ samp fële ci euh, imaaraat ñu koy tudde alxatmul falaki yi képp moo mën a foto weer wi léeg-léeg te léeg-léeg lay doon tàndapaat ci environment bi ci yooyu jamono ci jaww ji ni mel léegi nag weer wi xasee xëy foofu buñ xëy suba ñaar ko juróom-ñett foofu mu xëyee ñaar ko juróom-ñaar buñ xëyee ñeent day jugandoo jant bi moo jant bi dañuy fenkandoo mu leeraayu jant boobu koy gànn nag nga xam danaan ko dagg rek sës ko mooy tax weer wi fajar ñaar juróom-ñett kenn du ko mën a gis ci àdduna ak bët ndax moo jant dañu sëf jant moom war ngeen xam ne kenn du ko xool ak bët jamono ñu koy jàpp sax boo ko xoolee ak mu def la musiba damaa jëlee jamono boo xam ne jàppuñ ko mooy jamono boo xam ne leer gi muuru na sax bët du ko xool dañ koy tere day yàq bët ku ko def da nga ñàkk say bët waaye rawat na jamono jant baa ngi ne fang ak degereem yooyu muy def bët du ko xool léegi mu làngoog weer na ci ñaar fa juróom-ñett du ko gis su làngoog moom nag ci ñaar fa ba ca ngoon nag foofu la koy bàyyee léegi bu fekkee da koo teel a bàyyi avant takkusaan wala mu bàyyi ko ginnaaw takkusaan wala mu bàyyi ko avant minuit kon bu ñu xëy ñaar ko juróom-ñeent weer day neex a gis ndax day fekk fi jant bi bàyyee ba fi ñu koy séentoo day mat léeg ñaar fukki waxtu ñaar fukki waxtu ak ñaar léeg-léeg ñaar fukki ñeent léeg-léeg su mu loolu tànd bàcc ni mu koy teel a bàyyee rek mais léeg-léeg da ko du teel a bàyyi waaw day ànd ak moom ba guddi gi jeex ba suba muy door muy door a bàyyi bàyyi ko nga ne fi nga ko bàyyee ci suba fi ñu koy séntoo yi dootul bari ay juróom waxtu te loolu moo tax duñ ko mën a gis wala léegi mu ànd ak moom ba ko tey comme ni mu amee woon démb ci altine nga xam ne jant bi daa ànd ak weer bi ci ñaar fukk juróom-ñett ànd ak moom ba jant bi so jant bi di ko door a bàyyi ndax weer dafa jiitu jant bi so weer ñëw topp ci daal bàyyi te bi mu koy waaye boo fekkee ne guddi bu dee ci réewi naar yi fekk na vingt-deux heures jot moo waral kenn mënu ko woon a gis lii mooy bi am ci wàllu weer wi amul leneen ci xam-xam ku koy dund wax ma na koy wax leneen ndax nit nag ànd lu mën a xew salaay salaam danaan jàngale ba noppi benn waaye jug ne ko jaarul yoon lu mu ci man wa minhum man yalmisuka fi sadaqaat loolu alxuraan ko wax am na ci gaa yi ñu lay joxoñ baaraam yonente baa ngi toog ñëpp wër ko jullit ñi ba noppi am ñuy joxañ ñuy joxañ baaraam yonent bi diko ko ak di ko weddi salaay salaama toog na ci xam-xam ci euh, taarix yu ñëpp xam téere yu wér yëpp indi mu toog di waxtaan allahuma barik naa fi shaamina wa fi yamanina gaa yi ne amin benn waaye ne ko fi najjina salaay salaama noppi saa sallam baamuwaat allahuma barik naa fi na wa fi shaamina wa fi iraqina ñu ne amin waaye ne koo fii naj naa ñu saa jug di dem salaay salaam ne leen kee fan la jóge ñu ne ko kee ma nga dëkk ca ca najd mooy riyaad diggante moom riyaad léegi quarante kilomètres diggante najd xaw na koo jege te jamono mu fala liy teqale sama diine ji rey nit ñi indi fitna ci àdduna fa fale falay juddoo te mooy fii capital Arabie Saoudite léegi muy Riyad kon saa la ma sax mucc ci moom yàlla yoon muy jàngal daa jàngal ba am ñu dàkku am ñu bañ kon xam-xam lu mu leer leer tamit ki taxaw bañ ko mënoo ci dara loolu mooy jafe-jafe bi Euh, kon lii mooy li ci xam-xam jàngale sénégalais yi bàyyi ko xel bu baax nit nag du toppam xel baa ma bëgg a jiite dangay topp xam-xam xam mooy làmp bi niit mu des nag suñu réew mi nga xam ne yàlla dafa ñoo sédd ay boroomi xam-xam ñoo xam ne wàll wi lañ ci def ab tubaab sax mënu ko bari nañ ci réew mi Cheikh Mbacke Bousso radiyallahu taala anhu ca fas moom tamit euh, sëñ bi dem ca Jurbel ak ñeneen ñu bari waaw sëñ ma dem Sokone liñ ci bind kenn xamu nu mu toll amul leen raw ci àdduna waaw euh, téere yi nga xam dafa jiitu woon di jàngale ci wàllu temps wàllu heure demal ci réewi arab yëpp ba réewi arab yi jeex téere bi noonu yëpp di jàngale wàllu montar heure yëpp dafa sens léegi bi tubaab bi amee ay jumtukaay nga mën a yor sa montar xam kañ la jant bi fenk xam kañ lay so mën a xam sept heures mën a xam huit heures ba waxtu yi jeex téere yi ci waxoon yëpp bi science doxee àdduna dox bañ am ay nattukaay dañoo gis ne ñoom ñëpp dañoo daanu bam des heure bi sëñ Mbàkke bu sa joxe woon ba fii may waxee yow sensé wut loolu mooy xam-xam kon ah waruñu fee bàyyi ñun ñooñu di sukkunu ci ñaneen euh, mu des nag ci wàllu séntu weer boroom xam-xami astronomie yëpp tamit d'accord nañ ci ne ñi jàng astronomie dëgg senegal bu mun te gis weer wi amul benn réew ci àdduna bu mën a gis weer wi ci sart yi xam-xam joxe bu ne tey ñu séntu weer yi xam-xam ne kat tey sart yi matut ndax weer wi kat fi fi fi fi fi ko jant bi bàyyee ak fi ñu koy séntoo kat matul fukki waxtu juróom te kat jant bi lim lim njëkk a sowee weer wi euh, matul ñaar fukki minute ba mooy weer wi kat fi mu nekk ci jaww ji dafa wut matul cinq digganteem ak jant bi tamit dafa soriwut matul six nga xam ne loolu mooy condition yi nekk Sénégal nga xam ne kon kenn mënu koo gis Sénégal mënu koo gis. benn réew ci àdduna du ko mën a gis Sénégal képp moo mën a régler weer wi moom la àdduna bi mën a ñëw sukkandiku ci moom weer wi door a dox waaw mooy réew moo xam bu fekkente ne àdduna bépp dañoo ñëw sukkandiku ci moom weer wi dootu am bépp mën nañ koo bokk mais bu bu bu Sénégal rëccee benn réew buñ mën a sukkandiku ci gu weer àdduna bi mën koo bokk amut daaw ci kori wi ñaar fukki ñaar fukki xam boromi xam-xam ak juróom vingt cinq astronomie yi gën a mag ci àdduna ñoom ñëpp ñoo d'accordoon ci ne bañ noppee kenn ku ne bind ñu signé décret ne weer wii kat gis ko bët moom mënta nekk gis ko appareil tamit mënta nekk fu dul Sénégal te teewu gars yi dañoo tappale waaw loolu ku ci man dara boromi xam-xam yi nekk Arabie Saoudite ci lañ bokk maa ngi moom. danaa ko dugal fii ngeen gis ko boroomi xam-xam yi nekk Koweït ci lañ bokk boroomi xam yi nekk Qatar ci lañ bokk yi nekk Émirats yi nekk Égypte yi nekk euh, Maroc yi nekk euh, Malaisie ak ci réew tubaab yëpp ba muy ñaar fukki boroomi xam-xam ak juróom ñoo xam ne ñëpp dañoo signal seen bopp xam na weer wi kat tey ci àdduna ku ko bëgg a gis ak machine fokk nga dem Sénégal door koo mën a gis loolu lan lay tekki géographiquement Sénégal fi mu placé Dakar dafa dugg ci ndox mi point bu sensible la dafa def lu mel ni dafa wàcc mel ni ab kap def nii gis bu fa weer wi wàccee fépp fu war a mën a gise weer wi ci àdduna ci un pour cent mën nañ koo gis Sénégal cinq pour cent fépp fu weer wi di leer ci un pour cent Sénégal mën a fee leer cinq pour cent fépp fu weer wi di yàgg ci ay minutes nga xam ne ginnaaw soo gente ba am na nangam minutes Sénégal dana fa mat cinq am lépp loo am ci réew yi rek multiplier ko mooy am Sénégal ñi la tëdd kon réew yi ñu jël yi ñu tiim yi ñu ñu tollool waxtu taxul ma fu mel ni Mali ak réew yi ñu Mauritanie réew yooyu moom bu Sénégal mënta gis weeri moom xel xalaatu sax ñu di ko gis ci xam-xam parce que Mali démb weeru sona trois minutes jant bi door a so Sénégal weer yu sona deux minutes yu teg ñaar fukki seconde jëm kaw weer yu door a so Arabie Saoudite weer sona comme ni ma ko waxee woon ay douze minutes ci yenn gox yenn gox yi quatorze minutes jant bi door a so te Sénégal deux minutes Arabie Saoudite quatorze minutes la weer yu njëkk sowee jant bi ci li gën a bari Sénégal deux minutes kon douze minutes mooy li ma doon wax sànq waaw nga xam ne kon même Sénégal ko mënut a gis moom kon taxul ko ne ndax Sénégal comme weeru sono ñaari minutes jant bi doon sax mënul koo gis bu dee Arabie Saoudite quatorze minutes lay doon mooy li ma waxoon ne saa bu xam-xam saxalee ci ne tey weer wi kenn mënu koo gis fii ci Sénégal adduna bépp kenn du gis weer wi kon suñu bëggoon a noppalu ci wàllu weer wi dañuy fexe ba jëfandikoo Sénégal géographiquement ci wàllu weer wi man caa sukkandiku adduna bépp am jàmm ci problème moom rek moo mën a régler problème amul keneen te vingt cinq astronomie yi nga xam ne dañoo séddal koo dëkk kenn dëkku ci Sénégal kenn ku ci dëkk Sénégal ba mu dëkk Mauritanie ba mu dëkk Mali amut ñëpp ay naar lañ ñi ay tubaab lañ ñoom ñoo bindal seen bopp te ñu ko bind ñëpp xaj na ñoom doxuñ ba ñëw Sénégal waaye xam nañ ko géographiquement ñu bind d'accord ci ne weer yi ku koy gis demal Sénégal ñu bàkko fi France Amérique ak ak Russie yëpp xam nañ ne lu bari ci biddiw yi ak palaane yi pour nga mën ko observer ni nga ko bëggee da ñëw Sénégal gi waaw léegi yàlla lu ñu may loolu lépp nag ba noppi ñu ne fi yambare yambare dem di topp koo xam ne topp ñu di gëm koo xam ne gëmuñu di lijjanti koo xam ne lijjantiwu la teew yàlla may la li gën 2018 bi fi euh, muurum weer yu di am ñaata équipe la américain yi yónnee fii ñaata équipe la européen yi yónnee fii pour ñu observer planète bi ñu tuddee soxal ndax ci yooyu jamono lay gën a neex a xool pourquoi pourquoi mun ci yeneen réew yi dafa mënta nekk ñun yàlla dañoo may ñu nekk ci xattul istiwa ci digg bi lañ nekk yàlla may ñu ñooy Dakar foofu mooy mujjug sowu jant bi amul benn dëkk ci àdduna bu mujj bu mujj Dakar bu féete Dakar wala réew bu ko féete soowu direct Amérique daf ñëw féete nii càmmooñu ci sow bi sa sulfan fii ci fi ak lu métti fi ñu mën a gisee weer wi ak bët bët bu sedda na Sénégal ak Caraïbes yi te moo ne Caraïbes yi foofu ñu tudd ci géej gi ci géographiquement ñi ko jàngoon géographie xam nañ ne loolu ci sowu Sénégal la bokk dañ koo toxalaat ginnaaw bi dagg ko comme lii américain yi sàcc nañ ko ci Sénégal lii Europe yi ñu séddalewaat ko kenn xamuñu mel ndax mu njëkk doon toon ko mu Sénégal nii bu njëkk loolu Afrique benn la woon waaye fi Sénégal féeti bu jaaroon yoon nga xam ne tëddali defuñ anduñ ci benn njublan kon ba fi ngay àgg kaari bi Sénégal la koy moom foofu mooy fi nga xam ne mook Sénégal dañ naan ñooy fi gën a neex gis weer ci àdduna loolu borom xam-xam benn du ci werante gis-gis weer moom Sénégal ak foofu ci Amérique ci Caraïbes bi mooy ñaari gox yi nga xam ne adduna bu adduna jëm moo gën a a gisee weer te foofu sax ñoo xam ne ci Amérique ay nit dañ fa dundee sax pour nga mën faa gis weer yi fokk nga jël avion baa nga jël boto mais Sénégal moom da ñëw taxaw rek séntu weer nga am jaww ju tàlli joo xam ne amul montagne yu mag yi ngay séen jant bi di jaar ci si digg weeroo jant bi yëpp fi li ñu mujj waaw bu fi jógee door a jaar nag daal di daal di daal di daal di càmmoo ndeyjooru Amérique dem ci soow bi noonu nga ne pour nga séntu ko sax biir Amérique moom kenn dafa gisul weer daanaka waaye fi ñuy wax Caribe bii nga xam ne ci Amérique la bokk nga xam ne euh, euh, ki ñu tuddee Colombos nga xam ne mooy mooy li ma wax sànq ci wàllu falsification yi ñuy def ci histoire da ngay jàng ñu naan la euh, Colombos mooy ki njëkka a trouvé Amérique. te fekk loolu njuumte la ñu ne kañ la ko trouvé ñu ne mi ngi ko trouvé euh, mille quatre cent quatre loolu wérul am na ñu ko fi jiitu ñooñu am na ñu ne ñu la fi jiitu waaw Cheikh Abou Bakarin bi dëkkoon Mali Mansa nga xam ne dooma ko wusu ginnaaw Moussa Aboubacar moom moo moo jiitu Colombos ci xam Amérique lu toll ci ñaar téeméeri at parce que moom ñu ngi ko trouvé mille trois cent onze la jóge Mali gii di wër dem fa kon moo jiitu Colombos Christophos moom mu ñuy wax déedéet Aboubacar ko jiitu foofu benn buur bu amoon doole nekkoon Mali Mali gii moo tax boo demee ci ay mbindam moom Christophos moom Colombos bind na ba mu demee fekk na fa ay nit ñu ñuul loolu moo waral loolu ndax moom tamit Euh, Christophe moom da doon gëstu topp tomb nuqta yi nga xam ne tomb yi nga xam ne moom la Kalawdos Batlimos bindoon ci bi mu bëggee natt suuf si yaatuwaay bi mu topp yooyu fër réer ndax dama day wër pour commerce bi mën a gën a dox ñuy mën a jaayante ndax moom italien la mais ab euh, Espagne Espagne la newoon pour ñu mën a nag économie mën a dox muy xool nuñ ko mën a mën a jaare mu ne au lieu que muy jóge Inde di ko wëre ci côté penku bi da koy wër ci côté soow bi jaar Afrique xool ba xam far réer nag ñëw ba kaari bi yam foofu la njëkk a trouvé xam ne fii nag dëkkuwaay mu fekk fa ay africain ñu ne Columbus mooy ki njëkk a xam ne fii Amérique Amérique la ci lañ doon xam ne suuf si lu yaatu la mais nag Aboubacar ko ci jiitu 1300 parce que moom 1492 baneen yoonu ñaaree bi mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit ñaareel la fi Colombos def waaye Aboubacar fi jiitu ci Amérique mille trois cent onze muy lu wér ay su ay moom ci boppam bind boppam te foofu ñu turee noonu boo jugoon Sénégal ci soow bi da koy xaw a càmmoñu tuuti chaque jour astronomie foofu la ñu wax naan mook Sénégal mel safaa gis weer bi ak bët taa bu mën a nekk kon pour ñu régler problème weer wi te am na ñaari réew nag yoo xam ne jàmbaar lañ ci wàllu weer yi ma tudd ko tey muy fu mel ni Maroc ak fu mel ni Saltan Oman ñoom amuñ problème weer kenn mus sa gis njuumte luñ ci def ndax lañ dañuy boole séntu ko boole xam-xam ak def ci fulla ak fayda yu ma ak mbooloo ko war a séntu ay junni junni nit ñoo koy séntu te Maroc mooy réewum arab mi gën a sor ci sow bi ak aqsa baladin arabiyin fil xarb bu dee Saltan Oman mooy réewum arab mi gën a sor ci penku bi dafa penku réew arab yi aqsha baladin arabin fi sharq ñoom ñaar yi mosuñoo am juwoo ci wàllu weer wi ak Sénégal daanaka léegi nag réew yi ci diggante bi nag ñoo indi problème bi arabie saoudite neexut a gis weer ak bët dama ne ko wax mu leer ma ak réew yooyu taxul may wax ñoom jumtukaay la ñu yoo xam jumtukaay yooyu man su ma ko yoroon waxuma la seentu weer waaye fu weer yi mën a nekk ci jaww ji ma génne ko kon loolu taxul ñuy wax loolu léegi nag gis-gisu gis weer tàmbali weer du saxe ci appareil yooyu ci bët lay saxe soomoo li ru'yatihi wa aftiroo li ru'yatihi bu ngeen di woor na ngeen ko séntu ba gis ko ak bët ngeen woor su ngeen di woor ngeen séntu ba gis bët ngeen wori xam-xamu bi yëpp dañ koy jëfandikoo ngir xam situation weer yu tolluwaay bi amul la nen waaw la wax naa ko ba la Cheikh Saliou Mbacké doon wax rek ne man ay nat ay nattale moom nattale tubaab mbaa nattale wolof mbaa nattale naar du ci sukkandiku moom xam-xam bi ñuy jàng te ñu ko jàng maîtrise ko trop moom lay sukkandiku ak moom bi mu ci nattal boppam mais li ma wax Sénégal sa su sa su dañuy perte dañuy perte dañuy am ku rëy koo xam ne moo raw tubaab bi ay mën naa jàng tubaab bi junni at mais dañuy jàpp ne ab sëriñ la noonu rek doomi sëñ diw la pare nañ ci nitu yàlla amul moroom te xamuñ ne xam-xam yi mu làmbool ëpp na adduna bi mais cher nii rek lañ ci toll loolu moo ñu dal waxtu wu nekk ci borom xam-xam yeeg ñëpp tubaab bi bi ñu ñëwee fii Sénégal ñëw Touba natt jumaa ji seen masin yi xool ko bi ñu noppee daana ah lii de bokk ci jumaa yi gën a jàkkaarloo kaaba gi ci àdduna ne anakat moo ko natt ñu leen góor gëlee ñu doon sëñ Mbàkke Buso te moo moom moom bi mu ko tax benn jumtukaay te lii tubaab yee ko confirmé loo xam ne yow yaa ko not ak sa sa bët ñëw taxaw rek génne penku bi tubaab yi jógee France ñëw yor seeni machine dëpp ko xool ko gis ne jumaay Tuubaa dafa def direct kaaba gi ñu yaakaar ñu yaakaar ko nag lu ne la yor ñu ñëw fekk mu yor mu sol ay yére yu simple ay xaftaanam yor ay téeréem yor ak kurusam waaw wax na jamono tubaab yi bëggoon nañ koo jësi mais ba fekk fekk mu fekk mu jëm mat mënut a dem tubaab yi dañ leen jumtukaay suñu bàq ba su ne ko jël waaye nag bu leen sukkandiku ndax ñoom bu yàggee duñ natt kaaba ga Arabie Saoudite Arabie Saoudite lañ natt te yàlla waxuñu jublu Arabie Saoudite jëmmi kaaba ga màgg jëmmi kaaba jublu ak yeneen ñu bari waaw kenn mënut nga xam ne waaw tëdd kon réew mi raflewut xam-xam ba di ko jigaani fenn li ko yàlla sédd tamit raflewu ko ba di ko jigaani fenn moo tax lépp looy dégg ci réew yi muy réewi naar yi ci xeetu jumtukaayu suuf lu ci réew naar am Sénégal mën naa am ñettam bu dee ci wàllu pétrole moom waxaale wu ma ko bis dana ñëw mu ëpp pétrole ci réew yëpp parce que loolu ci doxinu jant bi la yàllaa ko def 21 décembre 21 juin 21 mars 21 euh, septembre yëpp jant bi day day day day day jaar ci ligne yi muy jaar bu xëyee su ngoonee mu sotti ko Sénégal ci pétrole loolu bu yàggee na lay def. parce que mooy li ma point bi Dakar nag dafa sensible euh, ni mu amee li ñuy tuddee al al al al al al al al ufuqul mubiin nag al ufuqul laala ci yeneen pays suñu borom bi noonu la amee ay ay gox yoo xam ne yu yu la weer yi saa buy tollu Dakar saa buy wàcc di so dafay def dafay jël ligne boo xam ne dafay def direct musallas Bermuda mooy triangle Bermuda nga xam ne képp ku mën a gis weer wi ci machine wala dara ci ay seconde ki nekk Sénégal dana ko mën a gis ci ay minute ki koy gis ci ñetti ceres Sénégal dana ko mën a gis ci neuf loolu Sénégal yi defuñ ko yàlla ko def comme naqare damay dem nga wax ak moom waaw te gox yooyu nag lu am importance la parce que àdduna dafa nekk ay sele bi yoon gis nga sele yoon ni mel nga xam ne foo jógee jaar jàll loolu nu amee ci kaw suuf si waaw Majalaan ak Sénégal gii ba ngay dem Australie ba fi ñuy daje ci terrain Bermuda yooyu yëpp day lii ñu weer bu so Sénégal moo tax nag bu fii so nag réew yim soo yëpp bu fekkee dañ koo gis ci lu mu ay seconde li ñu tuddee trois ceres Sénégal da koy gis ci neuf ki koy gis ci minute Sénégal da koy gis ci juróom-ñeenti minute chiffre neuf boobu amul benn réew bu ci jiitu Sénégal ci côté boobu léegi nag mu des nag lan moo tax duñ jëfandikoo weer wi ci wàllu karaan weer wi du baatin xam-xam dong la xam-xam la bu ñu war a topp yàlla moo na weer wi mooy calendrier ni ñuy jëlee calendrier tubaab bi calendrier jant bi wutal ko mu dox àdduna yëpp seq ko amul problème moo tàmbalee janvier février mars avril euh, mais juin juillet octobre euh, septembre octobre novembre décembre muy mu ak ñaar loolu yàlla bindiwu ko noonu ay nit ko fi def bañ nañ ko ba sax tur yooyu ay tubaab lañ waaw ki ci ëpp lu mu def mooy tubaab bi ñu tudde tuddee te mu dëkkoon Grèce tur yooyu yu ngeen seen noonu ay tubaab lañ ay nit ay tubaab dañ ko delloo tudde leen ko moom moo créé calendrier bi mais bu njëkk ma noonu tàmbalee ca 21 mars fa yàlla bàyyi woon fa la daan fa la newoon moom moo ko jëlee ci 21 mars indi feet gi ci 31 décembre def premier janvier moom soulier moom sëñ soulier léegi nag ne calendrier boobu ñëpp ci dënku de Sénégal ak réew yëpp muy dox waa naka nag calendrier bi nga xam ne moom la yàlla wax ne mooy calendrier yàlla précise wul fenn jant bi ci calendrier weer yi indi teg ko léegi pourquoi ñu bëgg jël weer yi def ko mbirum baatin fekk xam-xam dong la man ñu ñu ci wax yëpp xam-xam dong la du baatin du jege yàlla du dara xam-xam bu ñuy jàngal ak bu ñuy topp la alxuraan moo ñu jàngal lan mooy calendrier ndaxam xam nga bu dee jant bi ñi ko njëkk natt ci kaw suuf ba xaaj ko fukki xaaj ñaar mooy sumériyone yi fële ca Irak Sumériya benn nit jiituwu leen ci natt jant bi benn nit ginnaaw ba babilone yi ñëw def ko ay waxtu égyptiens yi ñoo ko def ay bis ñoo ko def bis yi 365 ñoo ko xaajalee noonu muy lu ma sëkk parce que yàlla addu mi mu bind da koy programme lu ñu nekk am na ko koy taxawe bu jamonoom jotee mu ñëw. ñu def ko noonu ba di ko doxal tey xam jant bi fi mu tàmbalee ci nawet ci noor ci nàngam mooy noonu ci lislaam la boroom xam yi fexoon ba tënku ci biddiw yi xam biddiw yi biddiw bu nekk bu fenkee lan lay lan lay signifier lan lay jeexital ndax yàlla moom biddiw yi la indi woon teg. waxalaamaatin wa bi nañ najmi hum yaxtaduuna ñu xam bidiw yi bidiw yi saa bu fenqee mooy waaye ne nawet baa ngi ñëw suñ suuxee mooy xam ne lee mu taw soo soo gisee bidiw yi ngelaw laa ngi ñëw bidiw yi soo ko gisee sedd baa ngi ñëw su jeexee tàngoor waa ngi ñëw foofu lañ ko tënkoon muy tënk-tënk bu leer dañu ko dem nag jël ko boole ko calendrier jant bi waaye biir sunu borom moom li muy jàngale ci téeréem bi mooy calendrier jant bi la la jël ne na ngeen ci sukkandiku lii ma wax ni ay nassu la du ay taraadi du xalaati jàmbur waaw alxuraan dafay wax ne yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnaasi loolu ay bu leer nañi la yow yonente bi ñu ngi lay laaj ci wàllu terute weer wi ne leen mooy nattukaayu nit ñi yàlla bañu ko boo du sax julli ñi de mawaaqiitu linnaasi mooy nattukaayu nit ñi yasalu anil la ñi ngi leen laaj ci wàllu weer wi ñu ne xaa mu ko ne leen xul xiya baatub xiya quinze la waaw yaa fukk alkubeer cinq muy quinze te mu ne quinze ci la jant bi dox quinze boobu boo ko multiplier ñeenti yoon mu jox la juróom benn fukk seconde yi di juróom benn fukk minute di juróom benn fukk juróom benn fukki seconde du minute juróom-benn fukki minit du waxtu montar génn na yàlla mooy jàngale montar ki njëkk defar montar ci kaw suuf buñ mën a jëfandikoo xam ci heure mooy Haaruna Rasiid mu yónnee ko Charlemagne tubaab yi daw montar bu ngeen gisaat ci àdduna foofu la tàmbalee kon xul xiya quinze boobu te ñeent yi nga xam ne ñooy dox jamono muy guddi bëccëg jant bi weer wi ñeent lañ moo tax quinze boobu boo ko multiplier quatre yi rek dóor ko ci guddi dóor ko ci bëccëg dóor ko ci weer wi dóor ko ci jant bi mu jox la juróom benn fukk muy seconde yi ma waxoon joxaale juróom benn fukk muy waxtu muy muy euh, ci ay minute muy waxtu mu génn léegi di fukk fukk juróom yooyu soo ko multiplier ndax suuf si dafa am trois cent soixante lignes comme ni ko weer wi amee diggante ligne bu ne ak morom ba fukk la ak juróom mu indiwaat baatu xiyya boobu soo ko xaajee ci digg bi muy cent quatre-vingts waaw lii kay lu leer la yàlla ne kon leen mooy seen calendrier yéen nit ñi léegi nag ñu bañ na duñu am calendrier weer yi moom boo waxee ne calendrier rek moom ñaakaar nañu woote bari wala leneen dafa dafa war a doon parce que xam-xam bu leer la ci alxuraan di wax weer wi yàlla moo jàngale ni mu doxe jàngale fi mu tàmbalee jàngale fi mu yem indil ko ay manaasil yu mu jaar kon ke lu ñu mën a xam la ku ne mën naa jël sa euh, sa sa sa sa sa sa këlkinukaay nga jël quinze yooyu nga multiplier ko xool li ma wax waaw boo ko multiplier kaat soixante la lay jox seconde yëpp soixante la soixante seconde di di minute soixante minutes di waxtu waaw euh, trois cent soixante ligne yi nga xam ne moom la moom la moom la moom la moom la suuf si doon diggante ligne bu nekk buum bu nekk ak morom ba fukk ak juróom la waaw fukk ak juróom léegi nag quinze yooyu boo ko multiplier vingt quatre yi nga xam ne mooy ñaar fukki waxtu yi ak ñeent mu joxal trois cent soixante lignes yi suuf si doon trois cent soixante lignes yi weer wi doon waaw li koy yàllaa ko programme ni lii du sensé ba adduna yi tukki du sensé baatub xiye boobu yàlla wax jublu ci weer wi fukk ak juróom la ci calcul parce que yàllaa ne ne calcul leen indi calcul jàngale teg dafa wax ne wajaxnaa layla wa nahaara aayatayni fa maxnaa aayata lay wajaxnaa aayata nahaari mubsiratan li tabtaxu fadlan min rabbikum wa li taxlamu adada sinina wal xisaaba yàlla ne damaa bind guddi bind bëccëg léeg-léeg ma effacé guddi gi indi bëccëg ginnaaw lépp tamit euh, li taxlamu adada sinina ngir ngeen mën a xam at fi ñu tàmbali ak fi ñu yem mën a xam calcul waaw ba par nga ne doo calcul yàlla nag bi mu nee ngeen xam calcul daa jàngale calcul daal indiwaan ne yasalunaka anil ahilla qul hiya baatub hiya di fukk ak juróom bis bi di ko composé lépp weesul guddi ak bëccëg ñaar yi koy dox nga xam ne ñooy dox calendrier bi muy weer wi ak jant muy 4 15 plus 4 lu mu lay jox moo lay jox seconde yi 60 10 minutes. minute boobu nga multiplier ko 60 moo lay jox waxtu waxtu yi ñaata waxtu la ñaar fukk ak ñeent question yi boo ko mun defaatee 4 yóbbuwaat ci ñeent yi yu ma waxoon sànq lu lay jox 360 suuf si ñëpp tàkkoon nañu 360 li ne moom la doon 15 plus 4 du doon du 30. àdduna bépp trente trente minutes lañ lañ lañ la ñuy départandoo lañu lañu wax ginnaaw waxtu yi trente minutes du ci sensé lu lu gën a wér di da mais yemul foofu yëmul foofu yàlla dafa tudd euh, dañuy wax ne diggante weer wi ak jant bi dix-neuf année yu nekk dañuy daje te moo nag même boo demee ci alxuraan da ngay fekk aaya yi nga xam ne yàlla day tudd weer tudd jant bi dix-neuf aaya la weer woowu nag di dox suuf si ak jant bi aay yi ko yàlla tudd tamit boo xoolee weer wi ak ak ak baatu alxamr ak samsu fi ñu tàmbalee fi ñu yem douze xaraf la lay jox douze xaraf yooyu mu nekkaat douze weer yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy li weer wi dox inna xidada suwari indallaahi isna asara sahran fi kitaabillahi alxuraan ju leer nañ ñu la fukki weer yàlla at mi fukki weer ak ñaar la ko def weer wi lay wax de waxul jant bi ba tey fukk ñaar yooyu weer yuy dox ak jant bi nga xam ne ci ci lépp aju nga boolaal ko muy du boole boole muy du saaraf te aaya bu ko yàlla tudd waaw sunu borom weer wi mu ne mooy calendrier da ko tudd ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar tudd jant bi fan weer yoon ñett nga boole ko du doon 60 ba tey mu joxaale seconde yi nga multiplié ko 60 mu joxaale minute nga multiplié ko 60 mu joxaale waxtu yàlla ci boppam moo ko ràbbalee noonu. kenn defu ko lu lu leer lay wax dara nag lu ko mën a tebbi amut nii dong la mën a deme koñ kañ la yàlla doon jàngale montar moo tax Salman Harouna euh, Rachid bi mu njëkkee defar bi mu bëggee defar montar moo borom xam-xam yi diine yëpp ñu gëstu aaya yi ba créé montar teg ko montar boobu tubaab yi bañ fexee ba mu yàqu mu ñoo fexe ba defaraat dañu ko mujj wooyi mu door indi ay technicien tey montar yëpp ci loolu lay lu jiit loolu ay ba amoon ak yeneen ak yeneen ci Grèce yoon yu njëkki yi muy yoonaan lii rek la waaw boobu nga xam ne moom la jant bi ak ak ak weer wi dix-neuf la aay yi boole jant bi ak weer wi dix-neuf la kon yàlla mooy jàngale léegi wala bi soo fii kahfihim salaasa mi'atin siniina wasdaadu tis'an yàlla indiwul calendrier jant de weer wi la indi lim ne waa asaabul kaafi kat la ñu saxoon ci seen xuntima ñetti téeméeri at la ak juróom-ñeent foofu calendrier weeru la tudd waa léegi yàlla naka lay nekk ci alxuraan di jàngalee calendrier weer ba noppi ñun julli ñi duñ mën a indi calendrier weer wi weer bi ko yàlla bindee nit ñee tax bind ko ngir ay kenn bind ko ngir ay malaayika nit ñee tax mu bind ko pour ñu mën cee sukkandiku wala bi suufii kaafihim salaasa miatin sinin wasdaadoo tisaan trois cent neuf année boo ko indee ci jant bi muy muy trois cent trois ñetti téeméer parce que téeméeri at yoo jël ci calendrier jant bi téeméeri at lay doon ak benn ak ñett ci calendrier weer soo amee ñetti téeméeri at ci jant bi am nga ñetti téeméeri at juróom-ñeent ci calendrier jant bi ñii dañoo tëddee atum jant bi di trois cent soixante cinq jours yu teg juróom benn waxtu six heures de temps atum weer wi di trois cent cinquante quatre jours yu toftal six heures de temps moo tax lu ci dox ñeenti at rek mat sëkk léegi nag weer wi li tax mu jar a bàyyi xel daaw euh, dix weer wi mi ngi tàmbali atu calendrier jant mi ngi tàmbali àllarba dix neuf juillet deux mille vingt ci luñ nekk tey tey la 9 avril 2024 ñaata suur la boobaak léegi yéen ñëpp ngeen a calcul waaw waaw maanaam 19 moo doonoon benn fanti ci di àllarba di benn fan ci weeru euh, tamxarit tey ñu ngi ci mille avril 2024. di ñaar fan juróom-ñeent ci weeru koor gi waaw muy deux cent soixante neuf ci calendrier weer jant bi léegi weer moom ñaata fan la weer mi ci deux cent soixante six sept muy trois yi ma xoon gis nga lool kenn mënuñ ci dara lii xam-xam la trois yi moom ba ko yàlla tuddee ci alxuraan muy ñett ñett yooyu ba muy ñett muy juróom-ñeent waxtu ne weeroo jant bi loolu dong la ñuy dox loolu waaye mën a wax nag àllarba 19 juillet 2023 tey la talaata 9 avril 2024 269 jours tamxarit àllarba benn fan weeru tamxarit 30 la weeru màggal 30 weeru gàmmu 29 rakki gàmmu 30 rakkaat gàmmu 30 maamu koor euh, maamu koor 29 kasu rajab 29 baraxlu 30 weeru koor wi ñu nekk 29 tey la weer wi feeñ loolu soo ko boolee lu mu lay jox 266 jours ñaata suur ci des 89 suur ndax weeru kor wi ñu jëm 30 jours lay doon kenn mënu ci dara ci li bët mën a gis wax ma ko yor ay jumtukaay li bët mën a gis weeru kor wi 30 jours lay doon weeru digg tabaski 29 weeru tabaski 30 muy 260 255 jours ndax saa bu calendrier jant bi matee 266 jours calendrier weer day mat 265 jours 255 jours ndax atum ren muy 2024 calendrier jant bi deux cent soixante six jours yu mat sëkk lay doon waaw ndax deux mille vingt et un vingt deux vingt trois vingt quatre at la ren yéen ñëpp xam ngeen ne vingt euh, février vingt vingt neuf jours saa bu doxee ñeenti at bi au lieu mu nekk vingt huit day nekk vingt neuf ren vingt neuf la. saa bu matee vingt neuf nag calendrier jant dafay toxoo ci deux cent soixante cinq jours ak juróom-benn waxtu yam doonoon ndax juróom-benn waxtu boo ko multiplier par lu mu lay jox du ñaar fukki waxtu ñeent di bis. nga teg ko ci muy vingt neuf euh, euh, février kon atum ren ni deux cent soixante six jours lay doon kon calendrier da koy topp calendrier weer wi ren deux cent cinquante cinq lay doon cinquante quatre la woon mais comme dafa dox ñeenti at moom tamit day mat sëkk nii rek la ba ko yàlla bindee ba léegi amul leen lu koy sensé comme nag ñoom sañ sul yi ak ñoom sañ ut ak xeet yooyu noonu fexe nañ ba teg fi calendrier ñëpp topp ko ñun yàlla indi ñu calendrier ñu teg ko fi nag adduna bépp defee nañ ba lépp ci calendrier ñoom suñu sul ñoom sañ ut ñoom sañ euh, euh, mai feex nañ ba tënk ko fi sañ sul fexe ba tënk fi calendrier boobu adduna bi dugg ci ko ñu ci fayeeku lépp ndax nit ñi moom la ñu xam sax dañ ci fayee ko weer waa léegi yàlla indi calendrier na yéen nit ñi calendrier bi yéen a ko moom ma waa xiitu linaasi weer yi moo mooy dox de ci lañu xamee weer du jant bi de li moo tax alxuraan ba mu indi di indi lu wér weer yi ñëw teg ko muy calendrier waaw kon quatre-vingt-neuf jours moo des ci atum ren mii mooy mille quatre cent quarante-cinq waaw jëlal ku mu ne mën ngaa jël sama sin nga calcul weeru koor wi trente diggu tabaski mooy si nekk da vingt-neuf tabaski 30 89 jours fekk si 266 lu mu la jox 355 jours du mënta manqué lii rek la suñ ko fi bàyyee nag dem sukkandiku ci lu ñu xamut waaw ginnaaw nit rek moo mën a créer ab calendrier waaw jëlee ko ci ne ko ña fi woon defoon ak na jant bi doon doxee première anne li ñu màggal ci fin année bu nekk muy 31 néewu koon 21 mars la nekkoon waaw sëñ sul maanaam tubaab bi ñu doon soulier te dëkkoon Grèce sëñ soulier moo ko jëlee ci 21 mars boobu indi ko ci 31 décembre jiitu na buñ ci màggal naan juddu yonte Yàlla jaaxal parce que 31 décembre na loolu moom te moom sañ soulier moomu faatu na lu yàgg te yonte Yàlla Isaa juddoogul lii rek la calendrier bii yaa ñu tudd calendrier tubaab atum tubaab mi dëgg la sax ndax ñoo ko fi def ni mu tëddee nii sëñ Soulier moo ko fi def léegi calendrier yàlla bi nag ñu ba fi te weer wi moo yor doxinu suuf si weer wi moo yor géej yi géej yi ngay seen yëpp océan Pacifique océan Atlantique ba océan yi jeex weer yi moo ko yor weer yi mooy tax géej yi duñ duñ weesu fi ñu war a weesu mooy téye bàgg yi ba du ëpp du yées dégg rek weer yi moo yor loolu ci ni mu ni mu soree am na nu mu doon gën a rek géej yépp dañu màbbu nangu dëkk yi loolu weer wee koy réglé yor bis yi weer yi moo yor énergie bi nga xam ne moom lay nit ku nekk lay dolli ki jaww ci énergie ak di ko manqué loolu weer wee ko yor yor màgg bi li tax nit ñi di màgg ci côté boobu boobu nag màgg ci wàllu jumtukaayu garab yi mel noonu weer yi mooy tax garab yi mën a mën mën a màgg mën a dund mooy tax bépp xob bépp gàncax man a sax ba noppi am di di fetti da am fleur di am ay ay jiw parce que weer wi mooy góoral jant bi di jigéen falammaa ra'awul qamara baashiqan ñëpp jàng nañ ko falammaa ra'awul shamsa baashiqatan ñëpp jàng yàlla sax bu ko tudd day góoral jigéenal moo tax sax bu nee eh, eh, nu tuddati équilibre total weer yi moo ñëw jàpp jant bi moo ñëw na ngëpp ci jant bi weer yi ngeen seen nii li ci gën a tuuti lu waa suuf man a jariñoo mooy séntu bi ñu koy séntu am na yeneen njariñ yoo xamee ne boo gisee tubaab yi amoon procès ne nañ ko yàq ñëpp mañ ci yam yeneen njariñ ya ci nekk tamit kañ bañ wax bañ ko wax nit ñi te ku ne bëgg ko ëppale sa morom te kenn ko bàyyee sa morom ñu xam ne buñ ci demee dañuy xeexoo moo tax ñu ne nañ wut ay bombe nucléaire dóor ko ci weer wi mais xam nañ bu ñu ko defee période yëpp ay sensé weer yi bu amutoon période yëpp ay sensé lépp ay jaxasoo lépp ay duggante waaw léppay duggante tàngoor yu jax léppay bor rek mel nit tox su bën sañ ba réer waaw mais mi naan ko ba yàgg rek nga xëpp ci kilo kaani bu mokk noonu la mel weer yi moo tax période yi di am ni ni àdduna bi séddalikoo jamonoy noor jamonoy nawet sedd tàngoor bu toon weer yi léppay ànd benn yoon jaxasoo rek nekk noonu kon weer li ci gën a tuuti mooy séntu gi ñu koy séntu ci fii la weer daa fi la war a loolu rek ta yi kenn xamu nu mu toll waaw te weer tamit bu amutoon kenn du mën a tabax lépp a yàqu lépp ay goyam li ñu tuddee goyam tabax yi bu weer wi ne woon dem xam nga bu ñu fàttali ko euh, tubaab yi doon problème bi ñu fàttali ko euh, mille cent dix la cinq mais mille cent dix le 5 1110 atum 503 ci gàddaay gi fukki fan ñeent ci weeru sawaal xam nga ngoon googu dañoo jékki-jékki rek weer wi di leer ba yàgg rek kenn gisatu ko mu ne fes tubaab bi toog nañ junni at door a comprendre loolu boobu jugul ci asamaan si ndax at ma ko jiitu muy 1109 atum junni ak téeméer ak juróom Euh, juróom-ñeent sedd pôle noor bi moo moo moo moo wàlli woon ba loolu montagne glace yi toj nag poussière boobu nekk ci jaww ji loolu bi ñu koy doon bi ñu ko xam yàggut moo tax at moomu nit ñi daj nañ lu nekk dem na ngeen jàngi histoire fekk ko ci te kat booba jógewu fi de mi ngi fi de waaye glace gi ko muur ba tax mënuñ ko gis rek indi na ci conséquence ci àdduna boo xamee ne borom xam-xam yi des nañ junniy at di ko jàng kon naka bu ñu jekk ci kon gisuñu weer wi nu ñuy def waaw kon il faut nit ñi delluwaat ci xam-xam ba ca sa mooy euh, wuuteeg weer tamit du jafe-jafe ci diine ji parce que da ko judduwaale bi ñu dikkee ba suñu jamono yii nga xam ne léegi am am na ay association ay regroupement yoo xam ne ci àll lañuy dox ci lijjanti ay asakaak lijjanti ay ONC ñoom ñoo indi nag xuloo bi am ci wàllu weer wi mais wuut ak weer yi ñii woor tey ñii woor suba ñii woor ginnaaw suba ñii woori tey ñii woori suba ñii woor ginnaaw suba moom ba lislaam juddoo ba léegi mi ngi fi mosu fee jug te nag du fi jug ba ba faaw gis nga wuute am nii 2025 bii di ñëw koorug 2025 mooy ëpp ay wuute fuuf koorug 2026 mooy ëpp ay wuute fuuf koorug 2027 tàmbali bi mën naa bañ am wuute waaye gis mu mujjantal gi day mel ni tulleeg màlle 28 2028 tàmbali mën naa bañ a am wuute mais mujjante ga day mel ni tulleeg màlle 29 noonu tàmbali mën naa bañ a am problème mais mujjante ga mais nag 25 bi ak 26 bi moom seenu tàmbali koor gi moom wuute bu metti lay doon ndax li ko war a mooy dañu bëgg saxal loo xam ne bët mënu koo gis te ñi yor machine yi dañ koy mën a gis te dafa am réew yoo xam ne dañuy sukkandiku ci machine Arabie Saoudite ñoom dañuy sukkandiku ci machine. dañu sukkandiku ci gis bu ko bët gisee ñu d'accord bu ko machine gisee ñu d'accord réewi naar yëpp lool lañ d'accord dañuy séntu weer wi ak ay machine bu ko machine gisee ñu ñu tàmbali bu ko bët gisee ñu tàmbali Maroc doxewul noonu Saltan Xumaana doxewul noonu mais yeneen réewi arab yëpp ñoom ñëpp lañu boole su ko bët danaan bu ko bët gisee baax na ku ko mën a gis ci ay machine wala ay manacé wala ay télescope tamit baax na léegi nag foofu la coow lu nekk te ñun bu dee ñun Sénégal ak yeneen réew yi comme dañuy sukkandiku ci wàllu gis-gisu bët Sénégal ak Maroc ak Sultan Oman ñoom fokk ñu wute ñoom ci tàmbali deux mille vingt cinq kóorug deux mille vingt cinq kóorug deux mille vingt fokk ñu wute ñoom parce que ñun deux mille vingt cinq ak deux mille vingt li bët maye ci weer wi dadut dadut mën a nekk ci ca ca jeexintalu baraxlu wax fokk moo tax mu am ay wóote yu gën a métti yi amoon ñii woor tey ñii woor suba loolu rek fi am. ba àdduna tukki nag wuuteeg weer du fi jeex ndax problème bii la tey itam fi la ko saxaaba yi bàyyi nekkul lu bees Seydina Omar radiyallaahu anhu bi mu fi nekk ñëw nañ ne ko weer feeñ na ca Yemen mu ne bokkuñu benn gox waaye yéen Yemen ak Arabie ñoo farañ teeroo Yemen ak Madina buñ bokkul ab gox waa naka léegi Sénégal ak Arabie Saoudite suñu diggante Arabie Saoudite fii ma toog di wax ak Arabie Saoudite juróom benn junniy kilomètres la maanaam cinq cent cinq mille neuf cent ci ay kilomètres daanaka mooy six mille kilomètres rek kon kay bu ak Arabie Saoudite bokkul gox Sénégal Arabie Saoudite ñuy wax mu ne leen bokkuñu benn gox yéen ña ko gis dem na ngeen tàmbale ci jamono Seydina Omar moo nekk ñaareelu xalifa yonent bi sallallahu alayhi ci kaw suuf nekk amirul mu'minin kon ku yaakaar ne wuuteeg weer daa doon lu bees waa daa mën a yàq ci diina ji dara déedéet bu ci xaalis duggee daal moom ak ay parparloo ña koy def moom ñoom ñoom la kenn waaye yàqul ci lislaam ji dara teewul lislaam mat sëkk waaye li am solo mooy nit ki moom di dellu ci njàngalem yonente bi njàngalem alxuraan comme ni ko yonente bi jàngalee ak li xam-xam jàngale parce que li science jàngale tam wéer wuutewut ak li alxuraan jàngale wuutewut ak li benn bi la ñi dugg ci diggante bi nag ñoo indi coow yi am ci wàllu weeroo gi mel noonu jamono yi Abdullah ibnu Abbas radiallahu taala anhu waajuru mu jigéen umul fadl Abdel Abbas salaay salaam dafa jël loxoom teg ko ci boppam ne xeet wu ngeen gis am nañ kàng fóori moom mii nag mooy kàng fóori sama xeet wi kuy am xam-xam ci xeet wi moo la ko ëppale haasa xibru ummati muy loo xam ne téere histoire yëpp saxal nañ ko waajur mu jigéen umu fatul yónni benn waaye bu ñuy wax kuréy bu ca saam te mu xaw yi mu koy doxal ay yitte mu dem fa ne ca baraxlu wa ba alxames di ñaar ko juróom-ñeent ci weeru baraxlu ñoom ñu séntu weer wa gis ko daal di woor um ajjuma Abdullah ibn Abbas comme moom mi ngi Madina ñoom ñu ñoom ñu weer wi ajjuma ca ngoon gisuñ euh, alxames gisuñ ko ñu um samedi ñoom nga xam ne comme ñii dañoo um ajjuma ñu um bi nekk foofa nekk foofa nekk foofa ba weeru sor mu ñibbi si Madina laaj Abdullah ibn Abbas ne ko kañ ngeen woor mun kaa ah, ñun de um ah, ñun de ñun ajjuma lañ um ndax gisoon nañu weeru ca foofu maa ngi ñoom mu xawee ak nangam ak nangam Abdullah ibn Abbas ne ko dellul fa nga gise woon weer wi ñun bi ñu woor fii ci Madina dañoo gisoon weer wi suñu woor yi dañ koy gis waa daa am lu gën a wér lii te loolu kañ la xewoon ba lislaam di door a jug nga xam ne amagul euh, fi yoon saa salaam jugee ak bi loolu amagul ñaar fukki at la loolu xewoon Abdoulaye Makhtar nekk fi ëpp xam-xam ci xeet wi waaw dégg naa nag sunu baay bu baax sëñ Omar sëñ Omar Sall <laughs> koy siyaare baax di ko ndokkeel ci koor gi dégg naa mu wax ne <laughs> mu ne Abdoulaye Abbas daa xamu doon géographie seetet <laughs> Sénégal da ngay waaru daal te ah kii ku mu wax ku mu wax dara jërul mu lay metti waaw ah, nee na Abdoulaye Ibn Abbas xamutoon géographiquement daal da ko jàng seet tët tët tët Abdoulaye Ibn Abbas ne ko dellul fa nga gisoon weer wi ñun bi ñu woor dañ koo gis soo mu liru mu naa ah, bu ñu waree dañ koy gis mais amul benn bi ñun jamono jii ñoo ko ci dugal Seydina Abdoulaye Ibn Abbas Seydina Ali bi mu toxalee nguuru lislaam gi capital bi jële ko Madina yóbbu ko Koofa ñu woor ba am ñaar ko juróom-ñeent ñu ne ko gis nañu weer yi mu ne loolu doyu ko moom daal moom information doyu ko mu xëy suba ci fanweer fanweereel ba tekku saani suuf ñu seen weer wi xam nga boo bëri day baax surtout ci foofu ñu nekkoon ñoom waaw te Basra dafa bokkoon ci dëkk yi gënoon naat ci yooyu jamono jaww ji normal amul benn tas-tas mu ne ah ñëwoon na gis nañ weeru démb day wax nañ dëgg kon nañ nañ julli ñu ne ko ah, lii nag mu ne ah l'islam moo digle ne looloo doy dong ci ngay sukkandiku Ali ibn Abi Talib waaye kan mooy Ali na bi Talib Abul Husayn wal Hasan salaay salaam jël na loxoom teg ko ci boppam ne anna madinatul xilmi waxali baabuha man maay njëndil xam-xam man yonente bi maay dëkkub xam-xam kii mooy bunt bi ñu laaj Seydina euh, Abdullah ibn Abbas mi mi raw ci xeet yi ne ko yow noo defee ak Seydina Alioune ci xam mu ne man de ak toq képp laa ci géej yi nga xam ne moom la imaam Ali amee ci xam-xam te mu ne lii lépp bi lislaam di bees la xew kon wuuteeg weer ku yaakaar na daa yàq ci diine ci dara wala dafa musta am ba lislaam juddoo ba tey mi ngi noonu la xewe topp taabixiine yi taabixiine yi topp borom ñeenti ngir yi ba agsi fii tey musta am problème ci diine waaye bi ñu demee ba léegi nag am ñuy jugee Sénégal jàngi Arabie Saoudite maa ngi jégalu ndax loolu siise bi am ñuy jugee Sénégal jàngi Tunisie am ñuy jugee Sénégal jàngi Égypte ñooñu nag ñoo del si indi fi ay aada ndax lan ku ci nekk am na am na ci ONG boobu bootu am na benn kilifa Arabie Saoudite boo waxoon 1989 moom moo nekkoon intermédiaire bi nga xam ne lépp lu jóge ci réewi naar yi dem ci suñ réew yi ci moom lay jaar mu waa Sénégal ñu dégg alxuraan lañ moom moo waxoon loolu mu ne waa Sénégal ñu dégg alxuraan lañ wax na dëgg kalimatun kalimatul xaq waaye nag wa min waraihi baatil ñu ne ko ah, mu ne waaw ndax mu ne fexe nañ ba ay alxuraan yëpp ñu def ko ay ONC ñëw fi ma financé leen mu ne dégg alxuraan foofu la feex ba mën a jëfandikoo aaya yi bañ mën laa jox alal muy lu doy waar 1989 la ko waxoon mu ne waa Sénégal ak ñu dégg alxuraan daa ñuy tooñaale te fekk na mooy équipe yi fiy dem rek équipe yi nga dégg Sénégal kuréel yi fi ne catégorie yi mu ne ñu dégg alxuraan lañ ñu ne xam ah mu ne waaw fexe nañ ba ay yëpp ñu def ko ay ONC ñëw fii ma financé leen léegi kuréel yooyu nag ñoo tàmbali indi nag bu ñu waree ñoom xas ña wari wut ñee ñi ñi wariwut tamit fayu mais du wu problème mu diine ji wuuteeg weer moom mosu fee jug ba ci sëriñ sëpp parce que borom xam-xam am na ñuy tudd ixtilaaful mataali xëy na danañ ci ñëw borom xam-xam yëpp d'accord réew mun ak say fenkukaay ak yëpp benn bokk ci morom heure daanaka réew mu ne nag ñi nga bokkal heure mën ngeen a ci wàllu weer ci misaal bu doon tey ñu ne ah weer tey teel a bu njëkk mën naa feeñ xam-xam maye na ko ah yàlla dogal Sénégal ngoon jot Sénégal mu xiin baa asamaan si fagg baa mu poussière nga xam ne moo tax gisuñu ko kon su boobaa bu fekkee feeñ na Mali ci feeñ gu leer wala feeñ na Mauritanie ci feeñ gu leer wala feeñ na ci réew yi feeñ gu leer subaa Sénégal man na caa sukkandiku mais nag liy am jamono ji at mujj yi da gis loo xam ne xam-xam ci boppam dafa dàq weer wi weer wi nekku fi ba noppi ñaan naan Mali te ku xam Mali situation bu dama ci wax waxaat naa ci wax naa ci ba tàyyi Mali moom duñ séntu weer Côte d'Ivoire la même chose ak dëkk yu bëri amuñ problème bu séntu weer ñoom nu leen duñ woor mukk fan ah ku ku neex na nga dem sukkandiku ci ñoom waaye bu fekkente ne la wax xam-xam sax na ne weer wi kat tey li ko jant bi njëkk a sowe ak leeraay gi am ak nangam ak nangam mënees na koo gis te muy lu wér Sénégal gisu ko réew yi ko gisul bu réew yi leen wër gis nañ ko ñoom ñëpp mën nañ koo bokk mais léeg-léeg xam-xam day dàq weer wi ba noppi nag réew yi wër Sénégal naan gis nañ ko ci loo xam ne Sénégal mënu koo gis loolu mooy jafe-jafe bi. léegi nag pour àdduna bépp noppale ci loolu dañuy ñëw jël Sénégal rek exemple ci wàllu weer wi comme ni ko borom xam-xam yépp nangoo foofu la jeex lii nag la mag ñi xamoon ñi dëkkoon Sénégal moo tax dawuñ nangoo roy benn tubaab baa benn roaj benn naar ndax diine ji nag boo ci defee du ci kenn defut ëpp la ci ñëpp kenn ëpp xam-xam nga xam ni ko yàlla bindee doo ko bàyyi du roy keneen mag ñi fi nekkoon ñëpp ci Sénégal loolu lañ xamoon xamoon nañ Sénégal li mu tëddi xamoon nañ li fi nekk ak ñoom dañoo jàngoon xam-xam man ko duñ ko fi bàyyi nag dem di roy am naar mel ni naar yi moom ñoom rek ñooy ay bët adduna daal lay dangay mel ni waa Mali ak waa ak naar yi ak ñoom rek ñoomi bët mel ni sénégalais ñoom dañoo amati bët dix huit millions sénégalais mel ni ñoom kenn amu ciy bët ba ñun daal dañoo war dem seet bëti jàmbur yi lii rek la xam naa ne yu bari dama dama ci amatul jot waaye kon danaa leen leeral a xóot loolu ci wàllu adduna bi ni mu tëddee yu baree bari tàppale yi ci nekk ak yëpp xam nañ ko waaye amatul temps boobu waaw te itam xam naa mbiru astronomie tamit maa ngi ñaan bu ñu waree jàmm rek ñu may ma ma pause ko tuuti dellu ci la ma nekkoon ci wàllu garab yeeg faj meeg yooyu parce que yooyu itam war nañ koo jàngale wàllu weer wi tamit dafa nekk loo xam ne dañ koy jàng weer yi danga koy jàng boo ko jàngee ba noppi nga pratique ko mooy topp li nga jàng sëñ Cheikh Gaïndé Fatma da wax ne soo jàngee ba noppi da dugg ci àdduna mu saraala li nga jàng kon lépp loo jàng bu saraa mooy nga pratique ko dox bu baax gëstu te di ko jëfe xam-xam lépp loo gis mu sax fi ginnaaw jàng dañ koo tajriba kon weer yi moom pour nga am ci xam-xam day fekk nga jàng ko jàng gu wér day fekk tamit nga pratiquer li nga jàng waaye dafa des beneen muy topp weer wi topp gu wér-wér boo xam ne du ay caaxaan weer moom képp ku du topp boo ci ŋaawee dañ laa war a rendi parce que boo boo waxee rek indi éeréel loo ko jàng-jàng te toppoo bu la ci benn bis rawee rek sa sero jëru ngay wax ci weer wi waaw parce que weer wi moom day sensé ma wax leen ko tey te itam xam nañ weer wi fu mu nekk xam nañ ko ndax weer wi moom ñëpp xam nañ euh, xisaab bi la doon wax wowul si jaaxal samsa diyaan wal xamara nooran waxadruhu la li taaxale mu adal sinina wala xisaaba xisaab boobu mooy lan weer wi kat bët bu set cinquante mille lay dolli ko ba du set cinquante minutes lay lay waa waaw léegi loolu yomb na boo ko nattee da nga xam weer bu ma ne fay mënut a feeñ kañ la juddoo kañ la judduwut lii rek la euh, li may wax tamit mooy weer yi ñun dañ koo jàng sonn ci wax naa ko ba tàyyi am na ci loo xam sa des ko nettali waaye weer yi li ma ci daj su ma amul adduna rek weer wi moom xañ ndax man waxtu ne maa ngi ci bis bi li may li may seet saytu weer wi ëpp na weer yoon ci bis bi kon war na xam ne moos du ma ci wax lu ma xamut bët bu set man guddeeg bëccëg ci yam waxtu wu ne rek même guddi sax lu ma bu ma gëmeentu woon sax sama xel ne yar ci weer yi damay bàyyi lépp dem dem lijjanti ko ndax dama ko yëg lu ci xew rek dama ko yëg waxtu ku ne jar na ma daggu dem xooli te weer yëpp lu may séntu amul benn weer bu ma séntuwul ci àdduna ba fi may waxee ak yéen weer yi fi jaar yëpp séntu naa ko ba mu des ñaari weer waaw lu ëpp séntu te mooy li ci gën a tuuti ndax weer yi séntoo ci gën a tuuti topp moom amul benn jamono bu ma ko defut waxtu ne maa ngi topp weer wi ci saaxir mooy ci xam-xamu saaxir ni ak li bët may ak mbooleem ku ciy wax ci àdduna bi commission yi ci àdduna bi yëpp. maa ngi koy toog boroom xam-xam yi ci adduna bi yëpp lu ci waay wax rek ma ma ma mi ngi ma téye dara lu ma ci rew amul waaw maa ngi ci junniy paas yoo xam ne benn nit ku ñuul bokku ci te loolu lu mu ko bi mooy ñor gu ma xam-xam bi ñor mbir su la ñoree da koy gëstu ba nga xamee ne nit du ci wax loo xamul. diggante deux mille euh, quatorze ak léegi junni paas yoo xam ne yëpp xam-xam lay jàngale fu ci wax ci àdduna fexe naa ba dugg ci ndax lan weer yi moom dama ko bëgg yàlla ma ci nattu waxtu ma koy topp ba may ndaw ba fii ma toll moo tax dara lu ci ci waay lu ci waay wax bee mu leer kenn mun ko fi lëntal ah, dañ naa ci loo xam ne des ko nettali guddeeg bëccëg nag du ma raw noonu laay toppee tamit yëpp weer jant bi ngay seen ak lépp lenn ci loo xamee dama koy nig nigal amut léegi sa waay bu njëkk ñu war dañoo jàpp ne dof ndax boo lijjanti weer boobu nit ñi xamu ko ñu naan la laa njëkk xam point yi weer yu feeñee yëpp ci ci ci ci ci jaww ci jaww ji yooyu jamono bu may séntu dama ñëw rek weer wu nekk xam naa fa mi feeñ dama ñëw rek taxaw léegi le comme boo nekkee ci dëkk taax gi foo taxaw di séntu weer yi ñu tabax foofa mënutoo faa taxaw léeg-léeg ñu itaas ko mënu ci dara waaye bi may nekk fi nga xam kese la fukki weer ñaar yëpp weer wu ci nekk du ma ci sonn xam naa fan lay feeñ xam naa fan laa koy gisee damay ñëw rek taxaw ne ma nga nee maa ko nattoon sama bopp te nag calendrier weer lu yomb la lu yomb a du dara. xañ na moyen na amul rek waaye bu dara te mën nañ koo defar fii ba ay junniy at yoo xamee ne seen ñëpp ci mën a sukkandiku muy lu leer at ñëpp ñu xam fan lay tàmbalee fan lay yem weer yi fan lañuy tàmbalee fan lañuy yem ci ni ko bët mën a gisee waxuma nag ay machine man su may defar calendrier loolu laay defar li bët di gis na man loolu rek laa man lu bët mën a gis moom du ma ci sukkandiku ndax mën naa sensé waaye bët daal li mu gis moom weer wu nekk fan lay tàmbalee fan lay yem mën nañ ci defal calendrier boo xam ne mën naa lënkaloo calendrier jant bi bis yu ne ci at mi ci Sénégal yëpp mën nañ ko cee dugal nga xam ne amul lu ci réer nit nañoo génn fi nawet bi tàmbalee génn fi nawet bi yem fi sedd bi tàmbalee fi sedd bi yem fi tàngoor wi tàmbalee fi tàngoor wi yam te nag lu yomb la boo amee lenn lu ko yeexal rek ci bind bi nga koy bind la wala jumtukaay yi yi koy lijjanti waaye xam-xam bi defar ko am du dara du dara te bis yëpp mën nañ ko xam nga xam loolu fii ba junni at wala ñaari junni at ñëmul kon jëlee na ay benn at ñaari at ak parce que fii weer yi amul muututa muututa réer waaw waaye weer yi moom nekkum tooguma nii rek koor jot wala ay koor yi de man weer yi des la weer waxuma la topp weer yëpp waaye bis bu ne bëccëg bu ne suba gu ne ngoon gu ne guddi gu ne fajar gu ne maa ngi ci weer wi waxtu wu ne minute amul maa ngi koy wax rek benn waaye dem ñuy waxtaan maa ko man bi fan ci koor gi damaa yeewu euh, trois heures ngir préparer ngir fas yéene xëdd am lu sama xel mi nekk di ko lijjanti diggante jant beeg weer yi di ko calcul damaa jékki-jékki rek dégg parce que man bu nekk du ma du dara calcul diggante weer jant bi rek jékki gis suba jot waaw kon nekkuma ci yii nii moom te nag moo tax lu ma ciy wax rek xam-xam la boo xam ne foo mën a dem ci adduna bu xam-xam ba wéeree day dëppoo moom kenn du ko mën a dindi kenn moo tax boo nee dara du ko dindi yaakaar ne da ngay du bàkku de mooy lii xam-xam la dañ cee mën a sukkandiku bi ñuy tàmbali tamxarit dama defar benn calendrier ne Sénégal gépp mën nañ cee sukkandiku ba Afrique ak adduna bépp suñ ko fi bàyyee nag ay aada dong la ñuy sukkandiku ak ay gëm-gëm waaye xam-xam moom. te suñ ko fi bàyyee njuumte lay am te bu njuumte lu amee weer wi moom boo ci juumee suñ Saliou Mbacké daa wax ne weer wi kenn du ko jàpp mooy jàpp boppam boo ci juumee moo la koy wax parce que day dem ba bis boo ko war gis di ko gis ndax weer bu xasee tàmbali ndax bu xasee la ko jant bu foofu da koy sori di ko sori di ko sori di ko sori di ko sori bu demee ba am ba nekk ci albadru muy weeru fukk ñeent bu xasee weesu nag fukk ak juróom lay tàmbaliwaat di jege jant bi saa bu di gën a jege jant bi saa bu xëyee di gën a jege jant bi fukk fukk juróom-benn fukk juróom-ñaar mu koy gën a jege fukk juróom-ñett fukk juróom-ñeent ñaar fukk ñaar fukk fan ak benn ñaar fukk fan ak ñaar ba ba ba ca vingt-huit suur ba nag musa si jant bi rek kon buy door a feeñ da koy tàmbalee sori bu demee ba xaaja wër gi mu wër suuf si nag tàmbalee waat jant bi loolu mooy indi buy door a feeñ nga seen cat di sew ruuj noonu tuuti ndax loolu ci sew noonu te alxuraan di ko misaal mooy li ci liy jàkkaaroog leerug jant bi te yaa ngi ci suuf si ndax saa bu ñu ko waree séntu saa bu waree juddu weer wi dafay daje ci bu ñu ko waree séntu weer wi day daje jant bi ak suuf seen cercle yi dañuy dañuy roofaloo cercle suuf si day tege cercle weer wi cercle jant bi ñu daje ci benn ligne boo xam ne xattu wax mi dañ koy tuddee waaw bu xasee jóge ci diggante boobu nag weer day bàyyi jant bi tuuti nga seen cat li yow mi ne ci kaw suuf nga seen cat li sew ruuj noonu loolu nga seen muy leer noonu jant bi moo ko nit mel ni ab car loolu leer ci jant bi la ci des li tax mënu si mooy def lëndëm mais loolu ci leer noonu mooy li jàkkaarloog jant bi saa boo gisee loolu xamal ne loolu leer noonu mooy li jàkkaarloog jant bi saabu xëyee nag di gën a dolli ko tuuti leer-leer bi xaw a yokk loolu mooy juróom-ñaar juróom-ñetti étape yi weer jaar léegi nag mu des beneen boo xam ne moom lay mujjantale nit ñi xamuñ na weer réyaay gi leeraay gi du ci sàrt bi ci ñu xam weeru benn fan ak weer ñaari fan ak weeru 30 jours lu xam la ci temps bi di aju weeru bët bu cinquante minutes moom lay dolli moom lay yeex heure bi mu so tey bu xëy da dana dolli cinquante minutes heure bi mu fenk tey bu xëy suba dana dolli cinquante minutes ba àdduna yi tukki du sensé euh, bu dee tey la wenn neuf weer wenn neuf saa bu feeñee li ñu xamee ne tey la tey la wenn mooy temps bi mu fiy am du ci réyaay bi de ci leeraay bi temps bi di tàmbalee vingt minutes ba soixante quinze minutes ginnaaw sowu jant bi loolu mooy weeru benn fan saa bu ko amee rek nga jant bi sonn nga xool fi jant bi sowee ak fi mu mu tàmbalee mu bu tàmbalee ci vingt et un minutes vingt ba soixante quinze minutes xamal ne weer woo keroog mooy benn fan. bu dee weeru trente jours nag ginnaaw soowu jant bi quatre vingt lay am ba quatre saa bu ko jant weer wi amee ginnaaw soowu jant bi bis boobu ku ko def vingt neuf tamit xam-xam defu ko vingt neuf weer defu ko vingt neuf saa boo xamee ne séntu nañu weeru gis ko jant bi so. weer wi am fi cent dix minutes parce que par trente yi yi muy toftal ndax fekkee quatre vingt cinq ba quatre vingt dix mu xëy suba am cent dix minutes mooy waaye ne weer wii kat buñ séntoon fii weer gis ko mu leer nañ ñi rëy buñ ko sukkandiku nañ xool temps bi mu fi am ginnaaw soow jant bi bu fekkee jant bi sona weer wi am cent dix minutes kon dañu xam ne weer yi feeñoo na ci démb ji weeru ñaari fan la nii rek lañu xamee weer adduna bi foo maa dem lii rek fa nekk nekkul feneen astronomie yëpp tamit ci lii lañ d'accord téere yi ci bind yëpp ci xam-xam loolu lañ fi bind amul la kon soo bëggee xam ne tey benn fan suñ séentoo weer wi ba gis ko temps bi muy am noonu rek bu dee weeru tey la njëkk feeñ vingt et un ba soixante quinze minutes ginnaaw soo jant bi bu dee nag tey la fanweeri fan ndax ñaata fanweeri fan léegi weer wi ñu séentu ko duñ ko gis ñu xëy suba fanweeri fan gis ko ni ñi naan daa rëy ak daa leer ak gàtt xam-xam temps ba dañuy xool bu dee trente maanaam weeru trente jours moom day leer te day rëy mais loolu du du xam-xam bi xam-xam bi mooy temps bi mu fi def. su fekkee quatre-vingt-un minutes ba quatre-vingt-cinq minutes la def ginnaaw soo jant bi loolu mooy weeru transu mooy li ñu daloon ci bi altane ñu séntu weer weer wi rëy loolu leer ña waroon ah, ña waroon ah, ah, altane ja naan weer yi feeñoon démb ca dimanche jaag dégg nga ñi ñi ñi ko gis ci altane tam jàpp na boobu la trente ndax altane ca ngoon weer wi ginnaaw soo bi quatre-vingt-un minutes fi am mooy weeru trente jours waaye gis bu fi amoon cent dix minutes waaw kay booba la la la problème bi am weer woo xam ne 10 minutes fi nga koy xamee mooy bu fa amee cent lépp cent dix cent cent maanaam li tàmbalee ci quatre-vingt-cinq minutes yooyu ba keroog muy dem cent dix minutes saa bu fi weer amee rek xamal ne bis bi nga ko gis ba ko jiitu la feeñ. weeru benn fan wax ne tey jii feeñ du fi fekk ndodd du fi fekk gee waaw waaw yëpp na ay xam-xam la yoo xam ne dafa bëri ba mënoo détaillé yëpp te waxtu yu gudd na ñu ngi jégalu ñëpp di. yàlla ñëpp jàmm waaye xam ne ne daal weer yi moom yàlla moo ne mooy seen calendrier te mën nañ cee sukkandiku nag parce que mën nañ calendrier mën nañ dara ndax xam nañ weer yi fii ba adduna fii ba nit fii ba ay junni junni at fi mu tàmbalee xam fi mu xam li mu am lépp mën koo génne xam temps bi kon defar gi moom lu yomb la waaw nii rek la weer tuddee bi ci des mooy dafa bëri yoo xam boo ko waxee lay sonal ndax nit ñi. loo jàngale jàngale tamit li lay woowaat a di la ci diggante dem ak tey daanaka mënoo noppal ndax téléphone yeeg te loolu nit mënu ko te nit ñi mun a wooyee wuy woon ñu jàpp ne leen fekk da nga sonn comme nit ñi waaw euh, li am solo mooy du dem ci télé yi ak rajo di wax mooy pratique xam-xam bi ñu fexe bañ mu nekk lu ñu bind ñu fexe ba mu nekk lu ñu mën a jàngal def koy calendrier ba ñëpp comme calendrier bi wax ñëpp mën koo jariñoo ku ko xas am noppalu ñu fexe ba lu ci nekk ñu mu nekk xam-xam ba am da ngay écrire nga xam ne lii du sensé ndax nii waxtu julli yi mel mënoon nañu am waxtu julli yi ko gën a leer fop waxtu dog yi mel mën naa gën a leer loolu te mën nañoo fexe ba nit ñi tamit dootuñ aajo ay montar saa boo julli suba da nga xam kañ ngay julli tisbaar saa boo julli tisbaar da nga xam kañ ngay julli takusaan saa boo julli tisbaar da nga xam kañ ngay julli timis soo julli da nga xam kañ ngay julli gee parce que lu yomb xam la mën nañu liggéey ba nit ñi xam waxtu diggante yi comme yi ñu fi doon a jàngale nga xam ne moom fu fi jant bi sowe ak fi ñu nodd gee soixante quinze minutes la loolu ba ëtt nuy tukki du sensé moo tax saa bu jant bi sowee nga bëgg xam waxtu gee bi rek heure bi nga yor avance ko soixante quinze foo waxtu nekk foofu mooy waxtu gee jurul calendrier foofu noonu ki bëgg xam waxtu gee kañ lay jot te timis jant baa ngi so bu jant bi sowee rek avance sa montre soixante quinze minutes ba xam waxtu géeyu fa la nekk nga door a ñëwaat sa montar fa 75 minutes rek foo mooy waxtu géey nakoon tamit jullik suba fi jullik suba di di jotee ak fi jant bi fenke ba tey 75 minutes la waaw soo suñ jullee suba nga bëgg xam fi jant bi fenke avancé sa montar ba mi 75 minutes minute ba mu nekk rek bu waxtu woo bu jotee jant bi fenk noonu nag lañ ko mën a liggéeyee ba euh, Euh, boo julli suba tamit nga a xam diggante suba ak tisbaar tisbaar takkusaan gi nga xam naa bitali baa ngi signal maa ngi siyaaru ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu